Uh, people you know who normally run their affairs during the week who doesn't have like time to sit and listen to the news or to know what is happening in the country and also outside the country so this breakfast show is, spe is specifically um, for that to bring you issues that has um, happened in the Gambia um, and also in the world at large uh, that is why this breakfast show is here for you as we always do it uh, we'll be bringing you um, specific stories that are like stories making the rounds um, in the Gambia and then also um, abroad for you to understand and to know what is happening um, around you. So this is this is the special breakfast show, and as usual, we have um, a very very important topic of discussion. That is, we're going to talk about politics and also as well current affairs issues. You know, with our guest, and which we will be you um, will be seeing in your screen um, very very soon. So we're seeing a very good morning to wherever you are, whether you are in your sitting room watching us um, live or whether you are using your phone going um, into your personal errands or also, you know, your weekend activities, following us live on our social media handles, that is on Facebook and also on YouTube. We are saying a very, very big um, good morning it is um, you know a bit um, kind of dark you know saturday so that is why we are indoors you know, because we cannot sit without bringing you this breakfast show. As long as we're healed and healthy, uh, the breakfast show is here for you, and the breakfast show is here to stay. And you are the people the viewers out there, you are the reason why we are seated here, and that is exactly what we are going to do, and that is exactly how we are going to present this um, program to you, you know, to, to you know, uh, go with you, you um, in your weekends, you know, to be part of your weekend, especially your Saturday morning, keeping you company in your houses, you know, because, you know, in the afternoon, most of you will go out there, you know, have fun and then, you know, relax and release the stress um, of the week. So the breakfast, so it's here for you. Um, Garmi, good morning and nakasasuba. am suba saa yi nii rek eh, eh, di di di neex eh, di nuyu mbokk yi seetaan na Africa TV rawatina seen jotaay bii di breakfast show ni ki ni ko Mariama Thiam waxee rek breakfast show li ko tax a jóg nag bokk na ci léeg-léeg dangay gis ne xibaar yu jàll ci week bi yëpp day day fekk nit ñi duñu am jot xëy na di mën a topp lépp moo waral nag Africa TV. Euh, mu nànd loolu moo tax mu indi breakfast show nga xam ne bu la xibaar yi rëccee rek di nga ko mën a dabuwaat ci euh, bis bi nga xam ne di nga mën a amaat yu bari noonu lañ koy defee nag ci gaaw bu jot rek tey nag yemoo fukki fan ak euh, ñaar Eh, ci weeru ogos dëppoo rek ak eh, atum 2023 ñu nar cee nag indiwaat eh, programme wala dictal leen programme bu am am solo waaye itam ni ki ñu koy amalee indi leen gan tamit yu am solo yoo xam ne daañu waxtaanee tolluwaay réew mi tolluwaay Afrique waaye itam gën koo yaatal ba ci addina si su ko defee nag noonu lañ koy defee tey tamit xam naa ne am na yu bari yuñ leen rek daal di nasal xam naa ci kanam dinañ ko ci ñun ñëpp ñu daal di koy. gisandoo incha ok euh, mu nekk lu am solo euh, comme ni ñu ko dee defee rek euh, suñu ges yi am ki nga xamante na ba pare waaye balaa ñoo ñëw si topic of discussion bi dañoo dem ak suñu stories yi suñu paree dellusiwaat ak suñu gadi we are going to start with. Um, the Gambia Police Force because as you know they are on a massive patrol um, uh, these days making sure that crimes are caught in the Gambia. So um, following the conduction of a massive operation to reduce crimes and uh, criminal activities in the Gambia last month, the Gambia Police Force's anti-crime unit remains adamant in making sure that crime is brought to a minimal percentage, um, if not eradicated. So in this major operation, the anti-crime unit, um, together with the Brikama Police Intervention Unit over the weekend, that is uh, last weekend, embarked on a joint operation in Brikama Duruma Kolong, which led to the police closing down all the bars in Brikama Duruma Kolong and subsequent arrests in other areas. We'll go read that story and then come back. The closing of the bars in Birkama Durumakolong is an initiative by the police aimed at restoring order and guaranteeing security by addressing unlawful activities associated with bars in the area. The reports indicate the raiding of many crime and criminal hideouts in a joint operation conducted by the Anti-Crime Unit and the Birkama Police Intervention Unit led by the Head of Police Operations Assistant Inspector General of Police Landing Bojang, which led to the arrest and dismantling of criminal dens. The operation did not stop only at closing bars but also had numerous consultative meetings with stakeholders, including bar and lodge owners, to discuss strategies and mechanisms for preventing and fighting against bar induced crimes. In one of the operations with the media, the Deputy Police PRO ASP Cadet Mohammed was said such operations are not witch hunt on citizens but to protect lives and properties. This is how our patrols unfolds all the time that we do. Um, and that's the intention to not just to minimize crime, but also to prevent it even before it happens. We will make sure that this operation is not just a sub, it's, it's, an operation that will continue, it's a, an operation that will survive its sustainability. Away from Burkama, police reports also indicate that the operation registered success in Brufut, Sokoto, Kololi Taban, Tobokoto, and Abuko, leading to the arrest of four suspects in Sukuta and four suspects in Aboko, respectively. In total, 95 suspects were arrested at different criminal dens and hideouts within the Vasquez region and the Kanifan municipality. The police said due processes have been initiated to process them for screening and eventual prosecution where appropriate. The police force has urged the public to be vigilant and to cooperate with them in the ongoing fight against criminals and crimes to restore peace and security opportunity for all Gambians and people living in the Gambia. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. That was the Gambia Police Force's anti-crime operation uh, last weekend. We all know that um, currently they are out um, in the Gambia or across the Gambia to make sure that crimes and criminal activities are copped. So last weekend, you know, uh, they collaborated with the Bikama um, Police Intervention in making sure that crimes are you know, cope in that area to the extent of closing certain bars um, in Brikama um, Duru Kolong. Uh, Garmi, um, police daal um, ñoom ñu ba tey daal ñu seen opération bi pour make sure ne crimes wàññeeku na si biir réew. waaw moom loolu moom warul dakk ndax ñoom seen wareef la ngir ñu mm-hmm. sàmm askan wi euh, sàmm leen aar leen. Mm-hmm. Euh, waaw ba sàmm seen i moomeel loolu mooy wareefu euh, takk der bu njëkk wala alkaati bu njëkk mooy sàmm askan wi ci ñu mucc waaye tamit duñ yem ci mucc rek waaye seen a moomeel mu daal di mucc euh, ni ñu koy waxee tamit mënuñoo xëy na euh, fànq li nga xam ne mooy ñaawti ba mu jeex tàkk waaye tamit ñu ñu ñu wàññi ko gën cee góorlu maanaam opération bi bu mu dakk ndax amoon nag ay jamono ci ginnaaw dañ doon coow ne Euh, ñi nga xam ne ñooy takk der yi mhm. dañ ñàkk wala dañ rafle li nga xam ne mooy jumtukaay yu ci mhm. demee nii xëy na ay woto yu ñu mën a jëlee pour ngir mën a wéyal seen waaye ci yàggut euh, daal nañu xam ne ne jox nañ leen ay jumtukaay yu bees mën a ay waruwaay ngir ñu mën a amal liggéey bi kon da gis ne waruwaay yooyu ne bu fekkee tegu na Euh, li ñu daan lay ne loolu moo moo daan tax sax xëy na opération yi ñu daan amal muy wëri yi muy xaw a euh, yéex wala duy am lu bari kon lay boobu moom jeex na léegi kon lu ci des mooy ñuy génn di dem di ko di di wër di ngir rek mën a daal di. ñenn ñi nga xam ne ay sàmba booy leen te ñu nekk ci biir euh, askan wi euh, di di leen lëjël di jël seen alal di leen dogale di di di léeg-léeg sax duñu yem si jël seen alal rek waaye tamit euh, dina dem sax ba jéem leen ci gaañ ndax tamit nit koo xam ne ma ngay jóg ci fajar di liggéey di daan dooleem di di dajale nga war a ñëw xëy benn bés rek dogaale ko kooku noonu xëy na du la bàyyi noonu te ñàkk bàyyi googu noonu ñoom it dañuy daf leen di jaral bañ sax mujj yi si faat la si kon da gis ne loolu police yi war nañ cee gën gën a mën a taxaw ba nga gis ne saafara nañ ko ci ci ci ci biir euh, réew mi ba nga gis ne bu ñu bu jeexul takk waaye na wàññeeku ba nga xam ne askan wi di nga gis ne tey nit ki buy liggéeyi tey comme ku nga xam ne jaaykatu reer xam nga reer guddi koy jaay. Euh, te nu mu gën a guddee rek si ngay a mën a am ay client ndax mm-hmm. ñuy waaye bu fekkee ne yaa ngi tiit mm-hmm. euh, xëy na la nga waroon na mën a toog ngir mën a jaayi doo ko doo jaay xel mu dal léeg-léeg sa nga wàcc te sa waxtu wàcc jotul ndax yaa ngi ragal ne fu ma jëm dafa xaw a sori te kaaraange gi xaw naa sooke ak yooyu noonu waaye da gis ne bu fekkee ni euh, police yi ñi ngi tàmbalee nu ñuy def nii ba nga gis ne sàmba wàññeeku nañ mm-hmm. da gis ne nit ki muy jaay léeg-léeg suñu yaay yi nga xam ne dañuy xëy yeewu war a ay fajar ci njël la ñuy jóg dem war a dem ba tànji wuti jën ñëwaat Serekunda jaay ko fa wala jóge Serekunda jëlee ko fa yóbbu ko Coste ak fu ne ci marché yu muy fasanteyu fasantikoo yi ci biir réew mi da ngay gis ne Euh, kooku noonu fajar gi muy jóg noonu faw mu am mu leer ko ne ko kaaraange gi day doy na su ma jógee fii ma nit nar a euh, dogaale it dina am euh, ab tak alkaati bu nekk si wet gi wala koo xam ne nii ñu mën a nekk fépp loolu dëgg la ndax moo tax ñuy woo askan wi dangay gis ne léeg-léeg bu ñu génnee li nga xam ne mooy ay saabal maanaam statement da nga ciy gis ñuy bind ci suufenteel gi di woo askan wi mm-hmm. ngir ñu jokkoo ak ñoom bokk ak ñoom xeex bi ngir ñu mën a muccal askan wi seen alal waaye muccal it euh, muccal leen tamit si si si jëf yi kon moo tax it askan wi faaw ñoom it léeg-léeg buñ gisee foo xam ne waxuñ doo xaar ba mu am xam nga su xamee ba pare nga doo ko woo police police bu ñëwee tamit Euh, daanaka lu ñuy wax béy wéy na mbuus maanaam lay xew xew na ba pare police bu jàppee kook tamit la xewoon bu fekkee nañ maara day bu fekkee nit faatu na ci ba pare police bu ñëwee tamit buñ jàppee ku ko def tamit bakkan bu rat noonu moom kenn mënatu koo fay moo waral boo njotee ni fii nii dara mën na fee xew loo xam ne nii mën naa jur jéye rek da ngay teel a artu moo xam sax bu police ñëwee ba foofu dara xewut sax waaye gis nañ ne am na doon xew police bu ñëwee mën naa stand by wala mën naa jéem a tàmbalee daas fanaanal bu ci kanam rek mën naa ñëwaat bu boobaa samba booy bu ñu gisee police di bëril tànk ci yenn euh, barab yi rek ñoom foofu dañ fay ragal lool rawatina nag boo demee ci yenn ñun ñu euh, boor yi costoroot fii ngay gis léeg-léeg nu mel boor boobu na gis mu mel ak yooyu noonu tax toon téebul mhm. am na yenn borob ci garage waaw da ngay gis nu muy mel foofu daal duy wóor léeg-léeg sax ak birkaama ci ci euh, jabi muy maquette bi dangay gis nit ñi nu ñuy toogee foofu di booy dugg oto sax léeg-léeg nga gis ku la wax na la moytu ko de bàyyi ko xel de yooyu noonu yëpp tamit police faaw mu gën a farlu ci ci mbir mi waaye tamit ñi nga xam ne ñooy askan mi ñoom it jàppalante ak police yi ndax joxe nañu ay ay li nga xam ne mooy euh, limtu manaam nomba mhm. <laughs> yooyu mën a yooyu mën kool ngir mën leen mën leen mën leen jot Mariama waaw mu nekk lu am solo ba tey rek ñu continuer si story si parce que euh, the Gambia's petroleum and energy minister Abdoulaye Diop has said that the country could lose its power generation from Senegal if incumbent President Macky Sall leaves office. Uh, Mr. Job said Senelec, the Senegalese energy agency, which is currently supplying the Gambia with electricity, is not happy with the supply service it is rendering to the Gambia uh, to the Gambia's electricity and power suppliers, NAWEC, as it is owing them over $20 million as past arrears. So the issue of power generation in the country has prompted the Ministry of uh, Petroleum to call for a critical stakeholder dialogue uh, to identify key risks facing electricity generation in the country. Let's go with the story and come back. In April 2022, the country's electricity company NAREC signed a power purchasing agreement with the Associated National Electricity to Senegal, Senelec, to facilitate the importation of 50 megawatts of electricity through the Soma Bilkamo OMVG substations for five years. However, NAREC is set to owe Senelec an area of over $20 million for the generation of power into the country. Minister Job said in the stakeholder forum that Senelec is not currently happy still supplying the Gambia with power as the Senegalese president's son has asked them not to cut off the power generation despite Narek owing them millions of dollars. The minister is worried about how the Gambia will cope if Maki leaves office by next year. Now, imagine today, come February, there's a change of government in Senegal because Macky Sall is leaving. He's, he said that. And then you have a government in Senegal that is not aligned with the aspirations of the country. There is no that cordial brotherly relationship. Already we know that Senelec is not very happy with the fact that NAWEC owes them today due to past areas almost 12 point, um, $20.5 million that they are not happy that they cannot cut NAWEC and that they're not happy because the president of Senegal has told them that do not cut NAWEC. But already at the operational level between NAWEC and Senelec, they know that there is a problem. They, they're not very happy about that. So what happens is this, come February, March, there's a change of government. Now, Senelec, what is, what is the likelihood, the worst case scenario? They may decide to hold back. Already, like the vice president said the other day, you know, governments, when they know you are going out, they wait you out. Minister Job also said that following the declaration of President Sal stepping down, Senelec has already started reducing the load of the power generation for the Gambia. Already, following the announcement of the president, they started intermittently reducing the load. We have seen that almost two or three times, where in the evening during peak period, the Senelec call NAWEC and say that we're reducing the load from 30 megawatts to 5 megawatts. And it caused outages during the peak period. So I sat down and I said, then what? Our generation in country that we have cannot meet the load. It cannot. There is no way we cannot meet the load. However, Syndicated, the Minister of Finance and Economic Affairs urged the ministry to look for ways to solve the issue of electricity and reboot their strategies. That's why you have your expertise in this domain. Uh, you should take it upon board to look at the risks that these geopolitical challenges pose. Uh, you should take this to reboot your strategy because it's strategy and execution now you are in the execution phase. You are in the deep sea. There is no fallback position. What do you do? Uh, Honorable Minister, I think the roadmap it's while very contingent on tapping power from external sources has inherent risks. And it was unfortunate that these risks were not identified earlier. The power shortage nightmare in the country may continue to be a major challenge for the citizenry as the government is yet to find a tangible solution to solve the frequent power outage. The issue of power generation in both long and short term periods looms worry on the Gambia government, prompting this stakeholder meeting in order to explore potential new areas of interventions to avoid possible power supply shortage. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. Yes, um, there was a story um, in the weekend. That is the Minister of Petroleum and also the Finance Minister and other ministers were there because um, the minister said Gambia will lose, you know, um, their power generation from Senegal, you know, if Macky Sall leaves, because NAWEC is owing Senegal over 20 million US dollars. So this is the issue at hand. Garden? What dafa dafa daal waaw dafa doy waar xam nga li gars yi wax rek lépp tuur faytoo nawek kiiwu boppam la sampee fu boppam la maanaam institution la ci réew Senelec tamit sampeef la ci réew ci beneen réew léegi dangay gis ne Senelec ci woo moom it léeg-léeg dafay am jafe-jafe foofu ci biir ci biir ci biir Sénégal kon da ngay gis ne bu fekkee ne tey Senelec am na nangutoo ak nguru Gambie gi jaare ko xëy na ci nguru Sénégal gi ba am seen nangutoo ba ñu gis ne Senelec dina am lu muy jox Gambie ci mbëj maanaam électricité Euh, suñ demee nag ba bor bi dem ba toll nag ci lu toll ci ñaar fukki million ci kopparu dollar euh, te Senelec ndax yaa ngi gis jëwriñ ji si boppam maanaam ministre bi mi ngi wax ne naweek euh, naweeg bégu Senelec béguñu ndax xam nañ ne maanaam béguñu waaye mënuñoo doog ñi nga xam ne ndaxte ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moo ci teg tànkam maanaam moo ndax boo xoolee sax loolu lu koy dëggal mooy ci euh, Sénégal Sénégalo Gambia euh, presidential council meeting bi njiitu réew mi si boppam wax na ne amoon na jamono bu naweek bëggee dog euh, Sénégal Sénélec bëggee dog naweek moom si boppam moo jël yëkkati téléphone am woo naataango Macky Sall Macky Sall ne ko dinaa di jokkoo waaj si saa si ne ko bul dog kon loolu daf lay leer ne kon Macky Sall moo nekk si diggante waaye Sénélec moom li mu bëggoon def mooy suñ ko ameelee bor ba mu toll fii moom daf leen di dog suñ fayul bor yi moom du leen jox kii waaye mu lay wax ne la bu fekkee ne nguur gu bees ñëw na amaana Macky Sall bu demee beneen nguur gu bees ñëw te Macky Sall fësal na ne moom day dem ala kulli aal kon nguur gu bees dina ñëw goo xam ne Macky du ci bokk kon léegi li mën a am mooy ndax dinañ wéy di jox Senelec euh, Senelec dina wéy di jox euh, nawek li nga xam ne mooy mbëj maanaam électricité loolu moom euh, njaw des naw xam bin waaye li ci am solo daal ba am solo mooy nawe gi dinañ wàkkirlu ndax tamit wàkkirlu gi mooy nit bu lay bu la joxee mayul la dafa la jox nga am loo ko war a jox yow itamit la la war bu moom la ko war bu fekkee mi ngi koy def yow it war da ko war di def maanaam su jotee ngir nga war koo fay fayal léegi lan moo xew ba naweeg wartu fay loolu nag xëy na ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir liggéey bi muy xëy na techniciens yi manager yi directeur yi yu ci bari ñoom ñoo koy man di di di di di leeral waaye nag uh, ñu ci bari da leen di woo ngir nga waxtaanee ñoom benn mbir mu xew duñ nangoo ñëw léegi nag yow mi nga xam ne xëy na li nga ci jàpp wala nga def sa analyse boo defee ñu ñëw ne wax nga loo waxtu wax mu dafa métti te waaye léegi luy xew ni yëpp mooy lu toll ni Gambie ñuy dund jafe-jafe li nga xam ne mooy moo wax la benn te musiba bu rëy la ngay ngay wéeru ci réewu jàmbur ngir am électricité nañ ñëw xam naa nañ ci yaatal ci kanam mhm. réewu Naija la fa xew Nigeria xam nga bokkoon na ci ñu leen di jox courant tey jii bii jafe-jafe amee foofu lu Nigeria njëkk a def dañ dañ dog bi dañ ko dog mhm. léegi nekkuñ di dund jafe-jafe loolu li mu lay won rek mooy tamit waxuma réew du tàllal loxo beneen réew ndax fii ku ci nekk da ngay da ngay tàllal keneen ndax kenn mënul sa bopp dara waaye nag am na yoo xam ne nii da ngay fexe ba foofa bu nangu kenn teg yow itam nga koy matal waaw waaye tamit fexeel sax yu yow it bu la nit di soxlaal yow it fexeel ñu lay soxlaal bu xalaat comme exemple tey jii bu fekkoon Sénégal am na lu rëy loo xam ne nii Gambie mi ngi ko koy jox moom tamit bu ñu ba am xaw a jafe ci wàllu fay du gaaw rek bëgg indi problème mu euh, tey jii bu doon Macky Sall Sénélec moom li bëgg def mooy dokk man mi wax ak yow nii maa ngi ci am kenn koo xam mi ngi liggéey biir Sénélec mos nañ ci waxtaan xam nga lu ma wax wallaahi mu ne ma euh, ñun su doon suñ sago rek rek rek bañ dogee nawet du tey te konoon sax mu ne euh, contrat bi ci boppam foofu lañ koy yemale dañ ko fay yemale maanaam duñ ko sax duñ nangu sax ñu ñëw négocier waat ne fay nañ wala dañ ko fay yemale loolu la ma wax mu ne dañ ko fay yemale te kooku ci ci ci euh, boos yi foofu ca Sénélec foofu la bokk du ma mën a tudd turam ndax xam nga mhm. du waxtaan waaw du waxtaanu kii mhm. waaye nii la ma ko waxee te yàggul dara rek Euh, euh, Modou Niang bu fekkee mi ngi seetaan mën na nekk sama seede ma waxoon ko ma ne ko njiiti réew mi woo na Macky Sall di ko wax ne te wallaahi moo koy wax ne na ma yow gar mi li ngay wax ne foo ko jëlee par yàlla def bi présidentiel council bi di am ñoom ñaar mu wax ko moom Baro si ah? mu wax ko fa si boppam. ñang mm-hmm. bi jeexee rek ñang si boppam moom ma kool doo nit du affaire nit dafa da waxtaan ak ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo lay wax lu nekk di xew nekkul comme da ngay toog rek xalaat dara waaye loolu moo nekk di xew nawet nag moo war a wàkkirlu dëggantaan ngir man a nag fexe fay bor yi nga xam ne ameel na ko Senelec loolu mooy dëgg léegi nag su jógee foofu ni ki di ko euh, jëwriñ ji yor wàllu koom muy finance ministre bi xam nga li mu ko wax mu ngi koy boo demee ba ci ba ci digg géej foofu nag yow mi nga xam ne amutuloo amul dellu ginnaaw nan ngay def léegi amutul dellu ginnaaw dem rek moo def léegi nan ngay def loolu la ko wax fii ne ko dafa am foo tollu woon tolluwaay la maanaam situation la loolu moo tax tey ñu fal la nga jiite leen waaye am nga ay maxarañ maanaam ay expert léegi tegal say léegi fi ñu toll nii lan lañ war a waaye jëwriñ ji tamit dafa am lu mu loo xam ne man daf ma daf a jaaxal muy wax ne dañ yéex a xam maanaam jeexital maanaam impact bi nga xam ne di wéeru ci beneen réew mu lay jox électricité dañ yéex xam impact bi maanaam euh, li nga ne mooy jeexital ministre bu ma waxee loolu man daf ma jaaxal ñëpp xam nañ ni wéeru ci jàmbur ci mu lay jox sa dund mu lay jox électricité loo xam ne parce que daf ko soxla lu ci mel ni électricité lu ci mel ni ndox lu ci mel ni dund ku ko wéeru ci réewu jàmbur ëllëg bu sëy bi naqaree nga am problème loolu moom ñëpp war nañ koo xam Euh, léegi nag euh, dama bëggoon suñu gan yi ñu taxaw si story bii nii ñu ñu ñu élaborate si because nekk na loo xamante ne national issue la parce que ku nekkan si wax euh, dafa mel ne comme fi mu nekk ñu next year um, presidential election yi Sénégal boobu is next year dafa mel ni kon su ma ki demee ba joxe lenge rek maanaam Gambie dinañ delluwaat si si si lëndëm bu miiti parce que fi mu nekk nii um, according to the minister comme amaguñ benn plans comme li wax mooy solo mu ngi ñëw waaye solo bi accès gu te even su accès sax comme soo yëg ne dina mun a saaf comme loolu bi dina mën a euh, doy pour euh, Gambie mu nekk loo xamante ni lu am solo la. waaw ñu wax technicien bi ñu ñëw gaaw. jox mhm. leen maay gi. fixer leen seen. Euh, ñoom Omar Boucher ñu ñëw mhm. fixel suñu gan yi maa ngi su ko defee ñoom it ñu mhm. taxaw ci kii bi waaye comme léegi mën nañoo euh, continuer ak beneen story bi den waa su ñëwaatee rek mu lii euh, ñu ñu mujjanteeli suñu mujjanteeli story bi muy the United Nations deputy spokesperson said the secretary general is concerned about the living condition of Niger's toppled president Mohamed Bazoum and his family as reported Farhan Haq said Mr Bazoum and his family continue to be arbitrarily detained by members of the president presidential guard in Niger. The UN Secretary has reiterated his call for the immediate and unconditional release of President Basum and his reinstatement as the president of Niger. Meanwhile, CNN reported reported that Basum was being kept isolated and forced to eat dry rice and pasta by the military who overthrew him in a coup last month. Let's go with the story and then come back. The United Nations chief has expressed grave concern over what he described the deplorable conditions of Niger leader Mohamed Bassem's detainment and calls for his release. Reports have it that in a series of text messages Bassem sent to a friend, the president said he had been deprived of all human contact since Friday, with no one supplying him food or medicine. Speaking to reporters on Thursday, the UN deputy spokesperson Farhan Haq said the UN is aware of recent reports that President Mohamed Basum and his family are living without electricity, water, food, or medicine. The Secretary General reiterates his concern over the health and safety of the President and his family, and once again calls for his immediate on conditional release and his reinstatement as head of state. The Secretary General is also alarmed over continuing reports about the arrest of several members of the government. He urgently calls for their unconditional release and for the strict adherence to Niger's international human rights obligations. On the humanitarian front, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said that aid operations continue. According to the UN, this week, the World Food Programme assisted more than 12,000 people with food in the Maladi region. The government and humanitarian organizations are ramping up efforts to support affected people. Humanitarian partners are struggling with low stocks of supplies due to the impact of closures of the border and the airspace. This situation may affect food assistance for 2.8 million people in the coming months. Bassem was ousted on July 26 in a military coup led by General Abdurrahman Tiani, the former commander of Niger's presidential guard who has declared himself the head of a transitional government. Since then, Bassem has reportedly been held hostage at the presidential palace in the capital Niamey. Reports have it that President Bassem and his family are being detained under cruel and inhuman conditions without access to running water, electricity, fresh goods or doctors. The junta has vowed that it will not bow to pressure to cede power as demanded by the Economic Community of West African States, ECOWAS. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. waaw kon euh, mu ngi noonu te topic bi sax bokk na ci li nga xamante ne dinañ ko waxtaanee ak euh, suñu guest yi parce que euh, politics lañ wax ak li nga xamante ne mooy current affairs waaye bala maa bàyyi gat bi mu dugg si rek dinañ waxtaan si li nga xamante ne mooy nawet bi maanaam story bu fi jógee léegi nii ak li nga xamante ne mooy ECOWAS coup ak li nga xamante ne tam mooy time limit war ko am si constitution si ndax war naa nekk warta mun a nekk loolu yëpp na nekk loo xamante ne ko waxtaanee ak suñu guest yi parce que ñoom toog nañ ba pare ma bàyyi lee naa gat rek moom doxal garmi waaw waxee noonu lay demee tey dinañ fi waxtaanee tolluwaayu réew mi waaye waxtaan tamit euh, ci li xam li ñu wax rek lu yëngatu lu ne li ko yëngal moo ko ëpp doole. Mm-hmm. ak yu bari yoo xam ne xew na fi nañ waxtaanee wàllu mbay ci électricité euh, nañ waxtaanee tamit euh, ndaje ñaari réew yi nga xam ne amaloon nañ ko muy Sénégal Gambian Presidential Council meeting bi nañ ci waxtaanee yenn nangutoo yi nga xam ne ñaari réew yi amal nañ ko waxtaanee tamit ci foqati nguur yu bari yu ñu nemmeeku ci Afrique rawatina ci Afrique saw jant bi ah daañu waxtaanee tamit li nga xam ne. moo jëm ci wàllu yemale kay muy term limit ak tamit Gambie fi xam nañ ne wàllum draft constitution waaye nañ laal tamit ci li nga xam ne mooy euh, député yi seen oto yu ndax gis nañ soxna euh, Marie Sock moom yéey na ci yàb bi wax na ci lu bari ci kii euh, yéene kaay indi nañ ko loolu nañ ci waxtaan waaye waxtaan tamit Euh, ci yeneen yoo xam ne tamit euh, euh, ki nga xam ne moo yor kàddu UDP dégg nga lu mu wax mu ngi jiiñ juróomeelu législature mu muy di fifth législature ne rek ñoom ñoo sàgganee ba Gambia si transition bi ñu waroon dem ñoom ñoo ko sàgganee ba daanaka mu mu mu xala gàllagoose ba léegi nii yooyu yëpp nañ ci euh, waxtaan waaye fu ñu njëkkee rek mooy dañu bëgg a taxaw ci nawet bi xëy na ñoom ña ñoom ñaar suñu ñaari gan waaye laata loolu ma yéeg siiwal ne suñu ñaari gan tey ñu ngi am ki nga xam ne mooy honorable Alhaji Mbow nekk jàmbur bu Opo Saloum ba pare bokk ci euh, African Union Parliament euh, nekk tamit ci languk NRP gi euh, bi mooy ñaareelu kayam muy nekk jàmbur maanaam bokkoon na ci juróomeelu législature bi bokkaat ci juróom-benneelu législature bi euh, moom la ñu am euh, <laughs> am ñu koy woowee Buur Saalum. Mm-hmm, Buur Saalum waaw kay <laughs> di ko dalal <laughs> ah, di di nuyu tamit ki nga keneen ki ñu fi amaat muy Marichok ku ko xam taxawaayam ci réew mi mm-hmm. ci lépp nag far na yëpp da ngay gis mu ci yëngu waaye tamit doonoon koo xam ne amoon na bëgg-bëgg ngir bokkoon ci jongante yi tànn njiiti réew yewoon ci rek atum ñaari junni ak fukk ak benn muy 2021 presidential election mm-hmm. amoon mujjee gi euh, am mu amoon ay yenn tëq-tëq ci wàllu kayit ba mu mujjee woon nag dem fekki euh, languk UDP gi ngir euh, jàppale woon leen ci boobule jongante waaye ba tey bàyyiwul di yëy yàbbi ci tolluwaay réew mi ci lu mënti xew ndax ci bu yàggul dara rek ci coowal oto yi député yi bind na ci lu bari wax ci itam xalaatam moom it lañ fi dalal tey ñu waxtaanee li nga xam ne mooy tolluwaay réew mi ku ci nekk joxe ni ki ñu koy wax réew duñu ko paccoo des koy péncoo su ko defee ku ci nekk joxe sa xalaat xëy na xalaat ba ngay joxe luy ëllëg euh, li nga xam ne mooy mooy saafara ci Mariama waaw mu nekk euh, lu am solo euh, ma njëkkee ko rek si Buur Saalum dinañu may tuuti ladies force comme ni ñu ko dee waxee rek <laughs> Mariso gis nga nawek issue bi parce que si week si week bi amoon nañ stakeholder meeting pour ñu make sure to look for um, solutions because the minister bi wax na ne um, courant bu ñoo jëlee li nga xamante ne mooy Sénégal euh, Gambie mun nañ koo ñàkk su Macky Sall tegee tànkaam euh, si si léngee mu nekk loo xamante ne Gambien si concerne si torop euh, ñu bari di laajte lu tax loolu noonu war a nekk parce que li nga xamante ne mooy nawet agreement la woon waaye nawet ba tey ñu ngi ñu ngi am amel Senelec lu ëpp si 20 million US dollars loolu moo gën a tax Senelec bu ko ne teggi seen tànk ministre bi mu ne euh, ki nga xamante ne mooy Macky Sall moo sampa tànkam foofu noonu pour rek luñ dog na parce que digganteem ak euh, Adama Barrow du ñu fi heads of state waaye euh, ay broda lañ so loolu moo gën a tax Macky Sall diggaasi tànkam pour Sénégal buñ dog nawet waaye Gambien su bëri dañ conscience lii bi nga yëgee lii lan what is your take on mm-hmm. um, soo leen dee soo leen dama dee wax ne nguur amul broda and sister uncle and grandfather Kisuma brother la Kisuma sister la let us be serious xam nga Gambian bi dafa miin kii so suma magla la suma they take advantage duñ serious if they see everything as a business and take the country serious bon predicament biñ nekk nii duñ ci nekk because yow boo xamee da nga am agreement with a company it's not Macky you have an agreement with even though they, they can call each other brother and sister That's not the point. The point is NAWEC as an entity has an agreement with another entity in another country. loo leen nekk nekk xarit njiiti réew bi that has absolutely nothing to do with the agreements that are on the table and those agreements should be fulfilled bañ xamee ne mënuñ koo meet oo ñu xam ne xëj na bu fekkee ne du nga ne si agreement bii nii duñ ko mun a fulfill because dañ ko waroon a seet bu ba léegi nag rek nag notice naa ko fii Gambia they, they act on, I think they act on impulse without really doing the mathematics, you know, short term, long term. I noticed that in a lot of things. So, this thing about not looking at things long term, the results long term, Nyara la cost, fi ba ba time, assess costing bi bu baax foog all the time there's an oversight because every contract that we have seem to have an issue. And we cannot take the fact that because uh, Nakaturati, uh, uh, the president, and the president of Senegalese are friends. I mean, we, that's not even, uh, is Senegal looking at, uh, at us like that? Just like they said, table for Makine it would have been cut off a long time ago. Why President B had to put his foot on there? And that is even wrong, because that's corruption. It's high time we as Gambians get serious. NAWEC has a board and, and a head. The board suñ meetee su can ne board be in the function I always say this remove the board change the board the land you serious because leader for daw yaram tey comme ni nga wax su ma office what is going to happen so Gambia is going to shut off because the new president might not take that nonsense how can we owe 20 million dollars huh? and still we are not getting full electricity. But then they have increased. If you buy thousand dollars today, because that is how the layman can understand. Whenever I talk, I talk on the basis without adding uh, big grammar. So everybody dinañ ñu mën a déglu bu fekkee nga jënd thousand dollars cash power yaa am 72.2 that's over 30 percent so léegi ngeen yokk ko ngeen ne pour fay NAWEC euh, pour fay Senelec what about the institutions that are owing what about the institutions that are owing so this ah, Senegal Gambia is just there for the name, but mm-hmm. um, most of the agreements you guys sign, no, is just a paper, but um, it is not reflecting, especially when it comes to um, transportation. So people have issues on that. So don't go on come second Senegal Senegal Gambia was you know being implemented mm -hmm. instead of just a paperwork as many would think. Do you think there come issues here? But why are the people signing just the paperwork? Balanga sign people don't say anything. that is the question we need to ask ñii dem di signé ah. comme di MOU between the Gambia and Senegal boo demee di signé amul benn MOU tey su ma ñëwoon tey ay Africa TV ne dama bëgg a def ak yéen dara ñu sign MOU ñu ñëpp a ko read bañ satisfy suñ satisfy ñu ne ah déet xaaral ñu yóbbu ko si askan yi ñu laajte you understand but you don't just sign and then after we say it's not favoring us then what did you sign. What did you sign? How can it favor us? Because you're not signing, you're not reading what you're signing, or you don't maybe understand the language. <laughs> because, like I always say, the English language can be misconstrued, right? yow mun nga mun naa binda documenté ma jox ko mister bu mu riidee ko ni mu ko xamee ma jox la ko yow tam nga riid ko ni nga ko xamee kii tamit dayse ko ni mu ko xamee but when we come together on the discussion table moom dina put lim foog ne moo nekk si paper bi yow tamit li nga foog bu ko defee ñu gis ne ah déet du noonu li nga du noonu then kii tamit ne déet li ma ri du noonu we put it together and then now we come and simplify it where everybody will understand waaye duñ toog ba léegi naan liñ binda favor wut Gambia naka la ñoo favor if the people that are there to sign the paper cannot read then let them take it to in before they sign anything let them take it to people that can or xam nga disseminate the information on their level pour ñu understand ko then Gambia will not be in this so called predicament okay. balaa ñu si Buur euh, mhm. ci dama ñu desaat tuuti ci mbiru nawet mhm. ndax dañ ci war a taxaw ndax euh, néegi dem nañ ba mbëj mënuñ koo ñàkk muy électricité dafa bokk suñu dund euh, ba pare fu ñu ñëw rek mooy tey ji boo déggee ki nga xam ne mooy Eh, jëwriñ ñaari jëwriñ da ngay gis ne dafa mel ni euh, jëpp euh, euh, ministre of finance bégul sax ci li xew maanaam kontaanul si sax situation bi nga xam ne Gambia toll na ci léegi ndax foog nga ne war nañoo mën a ñëw ba toll fii nga xam ne ci wàllu électricité dañoo yaakaar beneen réew ci li nga moo jëm ci électricité maanaam war a wéeru ci Sénégal ba léegi ñu ngi tiit ne bu Sénégal bu Macky Sall jugee fii Gambia mën naa dund jafe-jafe yu woos yu mu daan dund sax. Gambia warut a depend on or anybody for our electricity. Gambia rëyut this was one of the first things any head of state should xam nga su may wax ne Gambia defuñ structure this is one of the structures dëkk boo koy sànce dafa am structures yoo xam ne boo ko fa defee day dem a dem a dem beneen président su ñëwee du xalaat sax loolu because that was already done waaye fii ñaata président lañ am three presidents the second two ñaata at lañ fa toog ba pare ba tey mënuñoo am suñ électricité mënuñoo am suñ ndox and this is a because right now ñu ngi am car power mu ngi paak eh, naka tuddaati eh, Banjul right ñun dem ñu am du ma dee bëgg a wax lii waaye suma ex husband back in the 80s offoon nañ gaal bu mel nu bu ko gën a rëy to the Gambia government in those days and they rejected it because they could not pay for it to come to the Gambia and it was for free for free they rejected this is in the 80s we in what and we are accepting something that nobody is using anymore in the world lii moo daaneeloon Ghana uh, uh, part of li daaneel uh, Ghana économie bi so léegi ñun suñ fekkee ne ñu ngi use loo xam ne kenn usatu ko ba pare nekk fii au lieu ñu am suñ bos ñuy tap into all this is planning gis nga dëkka dafa need planning dëkka dafa need planning doo toog rek nga ñëw waa ah électricité waaw léegi nañ leen subsidize from Sénégal waaw nañ leen def nii nañ dafa need proper planning ut solutions lan lañ war a am nañ leen am suñ own solar waaye suñ toogee léegi ñu leb fii jël fale ba pare ne dañoo am solar waaye ñaata at léegi government baa ngi toog we in a what sixty years in this new government sixty years and up to now they are telling you when where, where's the where's the solar ah déedéet mm-hmm. comme nañ leen waxante dëgg rek where's the solar kañ laa ñëw how are they going to solve this problem now. dem na dem mu ngi si yoon bi mu ngi ñëw waaye. mu ngi si yoon bi depuis kañ kañ la mu ngi si yoon bi xanaa dafa xanaa dafa dafa dox. is it working ñaata yoon ñu ngi import ñaata yoon mu ngi egsi what is this ministries pour ñuy génn di aida di wax ak askan bi. Hmm. transparency waaye di wax ak ñoom tamit ci ci kàllaama bi ñu dégg. exactly hmm. because hmm. transparency is key ah. that way tey ñun ñëpp mun nañoo toog fii ñu wax ne waaw mu ne ñu ne mu ngee ñëw dañ amoon lii dañ amoon lii but we cannot all we can say mu ne ministre bi mu ngee ñëw and that is vague vague can be until ñu demaat elections you see so defa bokk si li ma laa wax bi this this xam nga it's the same thing this politics of naxaatee dugga si office is the same thing no transparency no nothing let them come out and pay Sénégal loolu moo fi nekk right now whilst they are waiting for the loolu moo ci nekk mi ko xam twenty million dollars let them pay for it apparently they have it they bought a cars eh, eh, <laughs> two point five million right <laughs> two point five ah déet dinaa ko fa indi di waaw non dinañ ci ñëw dinañ ci indi million times ñaata loolu ñaata la loolu mun naa jox ay advance bu correct waaw waaw dinañ ci waaw dinañ ci <laughs> dinañ mi ngoog dama laa wax rek mm. waaw mi ngoog dinañ ci ñëw xam naa loolu moom yitteel na la ndax wax nga ci lu bari euh, mm. Bour Saloum ñu nuyul waat la dalal la euh, dañuy tàmbali ci waxtaan bi euh, muy ni ki niñ ko laajee soxna Marie Choc muy rek ci tolluwaayu Gambia ci wàllu li nga xam ne mooy électricité ak jafe-jafe bi nga xam ne nawek am na ko muy bor yu mu ameel Senelec ba Senelec ci boppam léegi kontaan ndax ministre bi ci boppam ci biir wax ji am na lu ñu fàtte mi ngi wax ne léeg-léeg sax Senelec dinañ kool nawek ne ko leen di jox fifty dinañ ko wàññi dañ ko dee wàññi sometime indi ko ba ci tati soo si lañ leen war a jox loolu bu amee rek mooy waral ñu dee nemmeeku euh, la coupure yu bëri yu ñu dee gis ni yu bëri yu ñu dee def loolu moom si ministre bi si boppam wax na ko ne daf daf ko dee def lu bëri soo loolu yëpp mu ngi wane ne ñàkk kontaan gi Sénégal ñàkk kontaan waaye amul pexe ndax njiiti réewum Sénégal moo ci dëgg tànkam euh, nan ngay jàngatee euh, loolu am am jërëjëf euh, Mr mbay di nuyu ñu leen di seetaan yëpp ak euh, ñu nekk si plateau bi fii euh, ma ma sista Marie ak Mariama ñun ñëpp ñu leen nuyu di leen ziara ci samedi bi di discours loo xam ne really lu am solo ci réew mi fii mbiru nawet nag dafa nekk loo xam ne nii eh, dafa nekk institution boo xam ne nii lu gën a métti ci nguur gi mooy eh, previous government ak right now the current government Eh, parce que lu xew mooy eh, bori nawek moo bori Senelec moo feeñ waaye nawek seen bori romb na foofu eh, bu Senelec moo feeñ. Hmm. boo bàyyi xel ñetti at ci gannaaw su ma remember nawek demoon nañ ba certain stage bor yu ñu ameeloon yeneen banques su ma jumut ITFC mënuñ ko woon a fay ba parlement ñoo approve almost su ma jumut four hundred and thirty five millions su ma mu remember right to bail them out because this is a government institution even though NAWEC is an independent institution i am the board of directors seen yëpp government do jël xaalis budget di jox NAWEC non du def loolu NAWEC ñoom seen bopp operational cost bi ak operating expense yëpp ñoo la ñoo from the revenue that they generate from the people then ñoom ñu doxal ñoo doxal Why in gi du jël xaalis from the central government jox NAWEC pour operation waaye nag NAWEC bu fekkee ne nguur daf ko dugal ci jël bor da ngay ne nawet bu mënta fay of course nguur gi moo ko garanti mais ni kon government mooy fay loolu moo loolu moo daloon euh, nawet waaye nag fu ñu toll nii nawet dafa nekk euh, euh, situation boo xam ne nii dafa doy waar waaye nag loolu lan la miin mooy ne fu ñu jaar ñu xoolaat suñu institution yooyu naka la ñoo doxee fu ñu jaar ñu toog xoolaat ko bu baax parce que boo bàyyi xel depuis Gambie nekk indépendant ba léegi tey tey tey tey am na dëkk yoo xam ne ni air yoo xam ne amuñ courant Upper Saloum ba léegi amuñ courant Upper Saloum xamuñ lan nawet boo demee foo nga ne nawet kan mooy nawet du ndox du boo demee ñaani ja di same thing boo demee saami di same thing ak yeneen ak yeneen ak yeneen soo kon lan moo tax nawek depuis Gambie nekk indépendant ba léegi mënuñoo fexe bay jox courant ak ndox eh, réew mi Gambie réew mi nga xam a ñu ngi woon a motalaay 2.5 million people lan lan lan la so moo tax nag eh, d'accord naa mooy ne dañ war a toogaat xool bu baax nawek nu mooy doxee ndax lii luy mën a yóbbu eh, réew mi kanam la ndax lu mën ko fekkee mënu ko yóbbu ñu xool ceeñaat yëpp everything dañ ñu mën a def on waaye xam naa tam ne Euh, mbiru électricité dafa nekk loo xam ne nii euh, yombul mooy génération euh, mooy génération électricité xam nga dafa am ay mbir dafa am génération am nga am distribution so génération bi si boppam nag dafa nekk loo xam ne dafa seer moo tax nag nawet génération nekk use kootu depuis foog naa ñëw mag sa au sow fa yooyu they are not very efficient in terms of um, um, operations mm. parce dafa seer fuel bu ñoo use Eh, maintenance bi ñoo use ak ñu fa nekk yëpp dafa dafa seer nit ñi passé nañ foofu fu ñu toll nii léegi nguur gi lu war a def mooy ni seet lan lañ mën a def change course mooy jënat yu màgget yi nga xam ne am nañ ko fi toll nii ñu bàyyi yu ul yeneen areas yu nga xam ne nii dana mën a dimbale réew mi pare jox leen courant bu doy moo tax ñu ngi dugg si yeneen sola moo tax ñu ngi dugg si daam yi ni fii mooy eh, boo xel eh, projet bi ñu am noonu yooyu yëpp waaye itam loolu yëpp dafa mel ni dafa xaw a yéex parce que lii eh, réew loo xam ne waroon nañu ko doxal bu yàgg ay at ci gannaaw xam ne tey waruñu toog di waxtaanee fii Sénégal mu ngi jox nawet courant waaye boo bàyyi xel tam in West Africa ak ak many parts of Africa sharing of electricity eh, mu ngi very common even in in Europe eh, dafa common in electricity and gas dafa common léegi da ngaa joxe da ngaa généré loo xam ne nii mun la ko use yëpp nga ne ok nga xool sa niveau nga ne ah su ma néew bi soxla na lii nga jox ko si prix waaye dafa am pour so comme Sénégal excess bu ñu am nii eh, si région yu ñu yu ñu am connecté mooy booree Northern Bank bi ni fii waaw ex excess la dañu ko jox waaye nag du may. dañu ko jox pour ñu jox ko nit ñi nit ñi fay su nit ñi fay ñu fay eh, Senelec hmm. so foofu nag am na am na am na ay problème lan moo tax courant bu ñu nawet di di di jël from Senelec ñu ngi koy jaay nit yi ko Kaspawa amul le amul leb Kaspawa da dem fay amul leb da ngaa dem fay waaw prepaid da ngaa dem fay ñu jox la bu fekkoon dox la I can understand waaye Kaspawa hmm. most people in the country right now ne cash power nekk di use su ma jumul sax naa mën a amoon 90 percent also mhm. jege jege waaw mu ngi mel ni kenn lebul leen mu ngi mel ni ñoom nit ñi dañoo dem jënd mhm. waaye nag nañ bàyyi xel tam am na ñu leen amee boobu yow euh, ci ak mhm. mooy fu ñu toll nii depuis daaw ak ren ñu nga xam ne ñu ngay jël yu seen courant bi ñu ngay fay soo kon xale bu ñuy fay na fan la dem soo moo tax di di eh, eh, proper look at nawet bu baax parce que boo ci ñun luñ jot a xam mooy ne nam ak seen tarif bi àndut ak ñoom lu ñu doon jaayee mooy ne ñoom kurang ñoo lu fini. jaayee courant bi ci Gambie fii nii moo gën low seen operation expense bu ñu mel ne ñoom day operate at a loss man lu mënuma understand that business sense in that I, I really don't understand Yo ñu la jox dara pour nga jaay pour am ci dara pour mën a operations waaye nga ne yow lu ñu la jox jaay at a loss Yo foo jëm kon so it does man to me it doesn't make any sense moo tax nag eh, may wax ne toujours jar na ñu xoolaat nawek naka la ñuy dox waaye du only nawek waa nawek are all government institutions muy gamteel muy Gamcel war nañoo xool bu baax naka la ñoo doxalee parce que bu bàyyi xel lu feeñal raay na naw la ñoo wax waaye boo demee Gamcel boo demee Gamtel nga fekk fa di same thing mm, mm. wala sànga soo kon mu mel ni kon jar na xoolaat toog xoolaat bu baax ñii eh, seen business model bi ndax is it fit for purpose su fekkee ne diwu na loo xam ne fit for purpose fu ñu ñu ceeñ ko indi yeneen ñu nga xam ne nii nguur gi dana ci mën a toog parce que itam du na nawet tamit am problème nguur ñoom ñooy liggéey seen own xaalis def seen am nañ board bu leen a def everything so di ngeen ministre bi only on policy basis laay kii ak ñoom waaye su mooyee loolu seen board bi seen directeurs yi seen manager ñoom ñooy responsible pour doxal nawet fekkee ne dem nañ seren seen ñooñu doxal bu ngi am problème war nañoo toog xoolaat bu baax waaye itam nguur gi itam war nañoo toog seetaan fekkee ne nawet dem ne ba nga xam ne jëmmi jamono munuñ nguur gi war nañu jox comme ni ñu defoon ñetti at ci gannaaw dimbale leen ñu fay nag waaye nag nguur gi warta nekk waruñ ko def every ñu def loolu nañ dem xool lu nga xam ne mooy problème ca nawet ñu fis ko once and for all and ñu move on as a country ok euh, so so balaa naa kon bu ñu jógee foofu leneen loo xam ne war nañ ciy duggaat ndax comme tey euh, dañ fi am ñaari gan yu am solo mooy dem ñu ñëwaat ci Sénégal bi bridge agri euh, agreement bi Euh, bi nga xam ne ndax moom mi nga xam ne sax defe naa su nekkul mooy chairman bi xam moo vice chairman ci FPAC vice chairman ci FPAC waaw ci mooy comité bi nga xam ne mooy lu ñutu wàllu euh, koom ak sàq yi ci ci réew mi dégg few nañ ci wéru bëy ne janoo woon nañ ak ki nga xam ne mooy jëwriñ ji yoru euh, finance ministre bi Euh, ci wàllu boobu waaye balaa ñuy ñëw ci moom dañoo ñëw njëkkee ko ak euh, Marie Sow euh, defe naa du ñàkk dégg nga loolu muy Sénégambia bridge agreement bi nga xam ne gars am nañ ko ak Africa 50 waaw mu jur tamit coow lu bari ñu bëri di wax ne comme 100 million bi nga xam ne ñooñu dañ koy jox Euh, euh, Africa 50 daf koy jox euh, nguuru Gambia gi ngir rek diirub defe naa ñaar fukki at ak juróom 25 years ci loo xam ne ñoom ñooy yore boobule bërëb waaye ba tey Gambia moo ko moom waaye dafa mel ni nag ñoom ñoo koy jël lu mi ngoog léegi ban jàngat nga nga am ci loolu Marie man bridge boo xam ne li tax dama there are yoo xam ne dama ko bëgg a laajte number one lu tax government bi jël bridge bi joxe ko loolu mooy question number one bi ñoo build bridge bi from my understanding te correct me Mr Mbow there's a toll side bi and I think the side road or whatever is the responsibility of the Gambia government léegi dama bëgg a laajte fulfill because I don't think the toll area is still finished ndax ñoom li tax ñu def ko mooy mënuñ ko so the agreement was ñu ut koo xam dina ko agali, then bu ko ñooñu agalé because that was part of their sorry that was part of their contribution because tey su fekkee ne company dafa ñëw jox la ñaata milliards ne ok out of the twenty million yow di ci fay uh, five percent so their five percent or whatever percent was supposed to do the toll and the other side but it has never been completed léegi is it because mënuñ ko complete moo tax ñu outsource ko bu ko defee ñooñu suñ ko complété ñu collecte seen xaalis tuddatawul man loolu laa ci gis moo ma ne xaaral xëj na suma broda bi mhm. bi nekk ci biir xam nga ñun ci biti lañ nekk <laughs> xëj na yow nga mun cee na leeraa leeral du noonu because man loolu laa ci jàngat waaw because that part of the bridge was not completed waaw so so so monsieur Mbow xam balaa nga di nga ko mhm. leeralal loolu fekkee am na loo ci leeral waaye tamit teg ci yow it ban jàngat nga am ci ak mhm. bi ak it bu fekkee for nañ ci yooyu bay xëy na doo ci xuus si dëggantaan Mariama mooy ñoom jano woon nañu ak ki nga xam ne mooy mhm. euh, ministre bi euh, xëy na laaj moom ndax ministre bi waxoon na ne yeggagut fu mu war a mën a ñëw ci jàmbur yi maanaam ci yéen ci pencum ndaw yi mi ngir yeggee leen li nga xam ne mooy agreement waaye fi mu tollugum nii moom loi may na ko ngir moom mu mën a doxal euh, wala amal nangutoo nangu toog yi fu mu tollagum nekkul loo xam ne nii àgg ah. nañ ci fu ñu mëntu dellu ginnaaw léegi comme memorandum of understanding rek la ñu amagu waaye wax nañ ne 100 millions la euh, ak tamit ne 25 years la war a nekk ak yooyu waaye coow li bëri na léegi daal waaw ban jàngan nga ci indi ak tamit seen euh, giseeg euh, <laughs> jëwriñ ji hmm. waaw baax na jërëjëf xam nga foog naa ne loolu eh, wax nañ ci lu bëri fan naa ñetti bi ñeenti bi yëpp hmm. about di Sénégambie bridge bi waaye balaa am na lu ma bëgg a laal tuuti. as a member of the African Union member of parliament. am na lu ñu ci xam ñun tam balaa balaa ifindiri bi di feeñ ni sax. Mm. am na some years back man dama bokk si ñu di represent Gambia at the African Union seen parliament in South Africa Johannesburg. pare itam dafa considéré ne itam maa ngi on the committee responsible for infrastructure. Mm-hmm. energy science and technology. so da ngay ne ñun dañu la deal with NEPAD quite often. Mm-hmm. am sure sama brother Adama Dean ak Mr Mboup ñu Gambians they are retired waaye ñu ngi fi. Mm-hmm. ñoom dañ daan ñëw si parliament bi foofu di ñu jox an update about the infrastructure need of the African continent. Mm-hmm. Now, during that time, uh, 2018, 2019, here, dem exact year you um, nañu ne um, uh, uh, African Union dañ task moo ñu seet African intégration in terms of um, infrastructure mooy in terms of real rail uh, network in terms of air in terms of internet connectivity and also in terms of see, Lala Africa soxla from now until 2040. Um, because of Africa is working towards Agenda 2063 so you know, léegi lan Africa because of Africa Integration pour wax la waaye na bala moo gën a yomba road road network bi air connection yooyu yëpp dafa am pour nekk foofu ñoom bu ñu defee seen xayma ñu am a projet called PAIDA which is a uh, programme in infrastructure development in Africa ñoom la ñu gisoon ne Afrique dina soxla close to kilometers of yoon yu ees dina soxla almost like eh, kilometers of real network dina soxla tam 8.8 terabyte of internet connectivity pour mun dem kii bi dem ba ñëw bi gën a yomb ak connect communication yooyu yëpp et cetera et cetera ak itam suñ port itam war nañu increase tonnage up to um, sama mystique almost like 1.8 um, uh, you know billion tons war nañ ko yokk si port pour port yi mën a ji accept that the capacity so ñun foofu lañ door a commencé di understand like what do we actually need as a country in the Gambia fii ba in that discussion um, bridge bu ñu doon def Gambia ñëw na as an example ne African Development Bank ñu ngi dimbale Gambia pour def ko to bridge the integration between Gambia and Senegal so that's exactly how it started bridge bi um, according to suñu records yi eh, li ma gis mooy ne eh, ñu ngi fa spend 93 million dollars loolu lañ spend si bridge bi mooy Sénégambie bridge bi waaye nag léegi Eh, bu ñu defee loolu ñu ne date inflation gap dina cost African Connect 340 billion pour defar euh, fix those gaps. ñu ne waaw léegi what can we do euh, to euh, you know to to get that money eh, léegi most of the African countries right now they are debt distress which means lu ñu am debt dafa bëri so ñu ne léegi what can we do innovative ways to be able to get money without actually increasing our debt burden so then ci la this asset recycling finance uh, start di ñëw through the African Development Bank ñu create an institution call Africa 50 which does two things which is ñoom ñëw évaluation come like infrastructure need. But ba also look for another financing mechanism National lañ financing, but a so ñoom ñaari ñu lañ Gambia is also a shareholder that Africa 50 um, institution. Now, Legi, um, a few months ago, uh, the Gambia government, I can say even last year, sir, you start to negotiate with them because they have a program called asset recycling. Mm -hmm. Asset recycling, lan la moy fekke denga me current asset in any country. Asset bo xamne daf lay mëna gëna xaliss. par exemple 10 tool ñu am nii fii nii right ñu ne waaw léegi bu mu ñu seet euh, ñoom euh, public private partnership du Africa 50 moom moom xaalis bi ñu ne dañuy dem ut si private sector bi dajale seen xaalis bi ñëw def investment in your country intermarriage thank you very much. all getting paid exactly yeah. Mm. so you, lu ñoo def mooy dañoo dem ut ñu nga xam ne public private partnership. Mm-hmm. pour ñu ñëw développer that infrastructure wala fekkee am nga infrastructure ba pare ñu ñu seet nañ la mën a joxe You yow nga continuer develop those infrastructure mm-hmm. ñoom ñu ñu collect lu collect with a fee parce que um, just like just like a loan soo jëlee joxe ni loan wala overdraft da nga fay interest so mm-hmm. loolu la so um, si la government bi enter into that MOU with the Africa 50 mooy the government i am nañ interest. the MOU basically is just a handshake. telling the other party you know, i am nañ interest Putting a look at our this um, asset recycling scheme. so you know, bu ñëwee ñëwee fii gis nañ ñu xool whole bi the seen study everything you know, waaw biri bi de ñun we ñu mën a def mooy mën 100 million dollars. understand for Gambia government yéen ngeen continuer infrastructure development you dem lu ngeen a collect you need dem collecté ko suñu bopp bu ñu means right now Gambia government collection boobu dañ ci génne seen board. ñooñu ñoo ñëw def seen collection bi dañoo dañoo special vehicle am SPV mooy special purpose vehicle muy def de collection ñoo doon suñu collecte bi xam ne jot nañ seen xaalis muy 100 million bi ah. ak di IR muy nekk internal restoration of 15 percent then ñu jël xel in bu ñu commencé di collection from the bridge ne ah, Gambia is a partner to the Africa 50 exactly yes Africa 50 is a is a is a shareholder waaw so as a shareholder waaw they all went and lobbied for more funds. ñoom ñëpp Well, exactly because i am i am well. waaw déedéet dama dafa Africa 50 mhm. eh, Gambia si la bokk and mhm. Africa Development Bank mhm. So, whole Africa Development Bank actually they are at the forefront of almost everything in um, eh, resource mobilization they are at the forefront so waaye Gambia is part of it so in fact all the countries that are part of the African um, the African countries that are part of the ADB i am a representative just like the Gambia i am a representative at the at the level depending on like your shares oh, eh, the number of shares that you actually have. okay, so when Africa 50 lobbies for funds, wow suñu ñoom day have a um, like a consortium. Yeah. understand nga ñoom suñu la mm-hmm. di funds. dañoo ñëw create a special vehicle called a SPV. special waaw. but they get paid for collecting those funds because you always get some kind of kickback. Oh, oh, right? of, oh, of, of course. That okay, is not so part of that kickback, does Gambia get part of that kickback? No, it's, it's not. Gambia is a partner no, no, to no, 50? You see, it's not like a ah, kickback. no, it's an investment. Yeah. So, invest, so investment, you invest to get money. Yes. So that profit that you actually have, mm-hmm. Gambia will, will, actually have a share in. Okay. so it's not a kickback. Gambia Gambia dafa am share in it mhm. léegi that investment vehicle bu ñu def Gambia pour doo collection mhm. indi mooy company moo xam ne mooy def collection bi foofu mhm. owned 12.5% company. Right now, we have a sample of that in the Gambia going on right Why nobody buying help. Mm -hmm. Right now, Boboy is cable. Uh, sea cable. Sea cable, wow. I'm right now is called GSC, Gambia Submarine Cable. Mm Submarine Cable is a special, in, uh, a, uh, vehicle mm-hmm. that's created by Gambia government and the other consortium, which is So they are partners. Exactly, mm-hmm. So Gambia government will 49% of the while GSC mm-hmm. is an independent company registered under the Laws Companies Act of the Gambia. So ñooñu ñoo nekk for the Gambia government and uh, you know other partners mm-hmm. like Unique Solution, mm-hmm. Africell, uh, mm-hmm. Gamcell ñooñu ñoo nekk ñoom between ñoom ak ace consortium ñi xam ne ñoom exactly waaw so already Gambia am na example of that already that's been working fine so léegi nag government instead of trying to do the collection on their own am na ñoo xam they are more capable mm-hmm. because of again government is not really very good mm. um, negligence bi ay yamane so léegi da nga def mooy that will be handled by somebody independent mm-hmm. for efficiency and to mhm. also to be very effective. New mhm. bu ñu bàyyi xel collection in um, GPA Ferris was collecting mhm. in 2019. su ma mistake first collection that year they only had 169 million dollars then you go fast forward by 2020. Mm -hmm. when the um, uh, take over. Wow. if you look at the loss of the Gambia, mm -hmm. it's the responsibility of Akano to collect all the fundamental to the government. Mm -hmm. Right now, they were able to collect almost 400 something million dollars, 468 million dollars in the 2022 so that tells you there's something wrong somewhere. Mm-hmm. Understand? Mm-hmm. From 170 million, 270 yep. million to, yep. to, to almost 470 million. Because so, it was not digitalized. Exactly. It was not yep. digitalized. Um, mm. if yep. brothers, oh, whatever. So, so the thing is, the government is not really very good. Government is not really a very good business um, person. Mm-hmm. Lumuna use the private sector, give them what they need in terms of tools mm-hmm. um, to create the environment, and the private sector is going to do the work for the government. Mm-hmm. Xam nga Africa tusu dama ko de wax. Fi nga gis ah, a If you go to other developed countries, mm-hmm. it's the other way around. It's the mm-hmm. private sector actually doing the mm-hmm. employment than the government themselves. So da ngay ne with Africa now, just to make it short, mooy ñu ne léegi ñoom xam nañ ne bu ñu tegee over the bridge bi andi collection dina improve ñu ne ok we can come even the tool ba fa gars yi government defaraa mm-hmm. na dañ ko génne teg tegee ko bor fële xam ne léegi dara du peer déedéet mm-hmm. man the proper tool laa waay you know no right now lu fa nekk proper uh, digitalized tool loolu Gambia government moo ko fa def waaw Gambia government moo ko moom and then we we we we we did it through the through the national budget Okay. it was the responsibility comme it was the responsibility of the government so ñoom def nañ loolu waaye still now dara one bu fa nekk right now is not very effective parce que nit uh, mun ngaa romba Mm-hmm. the charge will not will not will not mark. Okay. So which means the accountability and stuff that is still there. Then, then something is wrong with the machine. Where in the um, world do you see no, that? No, it, it, depends on the infrastructure boy use. xam nga dafa different different levels. so i am not infrastructure i am a counter. waaw léegi su put bi jógee. waaw dafa you nga going to have benn romana. you léegi nga mag. waaw nga am lii hundred dollars yi. whatever. then baa drop waaw. bii nag dafa am some some some key proper infrastructure is not there. so what mm. Africa Fifty is going to do mooy Then you 100 hundred million. Gambia ñoom continue to develop more infrastructure. Okay. what they want they don't even tell Gambia what they want to do that's, that's not their business. léegi nag ñoom they gonna collect They gonna take care of the tool defal seen ñun infrastructure di collect xaalis bi suñ collect bi am hundred million dollars right now nii then you know, ok IRA mooy my internal resource return ñu am 50 percent of that Why the operations. Hmm. staff yu fay liggéey. une fois yooyu yëpp ñoom ñoo responsible not Gambia government so Gambia government dafaa toog rek euh, waaye Gambia government is part of the board because am nañ in mm-hmm. um, um, special purpose vehicle bi mm-hmm. Gambia government dafaa toog in terms of the reports in terms of revenue generation yëpp Gambia government dafa xam lan mooy duga ak lan mooy génn you know why Gambia ma de the reason why Gambians are so scared and everything about this is because comme tey yow yaa ngi ñëw yaa ngi ko it comes back to li ma doon wax transparency you see when we have a government that's not transparent dañoo nekk di laajte di laajte ku nekk di assume because fii lañ toog security security port dafa tax ñëpp tiit security port kenn xamul deal bi naka la kenn xamul eh, eh, anything naka and up till today people are not explained yow tey toog nga laaj nañ laaj nañ la questions jël nga sa time explain nga ko si yow ni ko explainé and um, askan bi su ko déggee it xaw naa make sense why there are still questions to be asked exactly because the fare of security port si suñ airport bi loolu moom man maa ngi war a tukki waat sax normally Dakar laa dee jël waaye maa ngi already you know it's like a panic. yu ma la no that's what I'm saying it's like because damaa di xulu it's a panic so that is why people are asking we don't want these things to be repeated in our country because dafa sonal Gambian bi dafa sonal askan bi so lu nekk rek teg leen ko si table mu leer if a government is transparent billahi people will not have a problem by trying to eh, ku nekkaa ngee wax lu leen neex ba pare so called intellectuals ñëw di wax seen boss. so at the end of the day you create confusion in the country su fekkee amuñ koo xam ne nañ explain you are there You you are part of it <laughs> at least they take somebody like you listen we want you to be our eh, spokesperson on technical issues and eh? then dama laa wax loolu rek because we need to you understand because the Gambian deserve so but I think you know uh, the local language also um, you know explain things in issue uh, in English the mm-hmm. technical terms and all those things Um, fooguloo ne comme suñ ko doon wàccee down to the language of su ko su ko anybody dégga dinañ ko mun a dissect si soose si fulla si indi waaye suñ toogee di làkka english ba pare english ñu foog naa tam that's one of the issues we actually have um, uh, we spend too much time uh, after english language eh, ñun like may represent Opo mm-hmm. Saloum ñu si ëpp doo dégguñu english thank you on a sanga dégguñu english so moo tax baax na yu mel nii su amee ñu ñëw ci mbooloo mi wax ko ci soose wax ko ci mhm. olof wax ko ci jola wax ko ci si si manjaago ba mhm. ñi understand mhm. so da nga gis ne gis nga nit ñi suñu understand rumo yu bari dafaa wàññeeku thank you understand nga di nga ne nit ñi suñu understand ñàkk a óoluwante tam as so fa tam lii lu am njëriñ la waaye tam man amee member of parliament ñun dañ def suñu gëstu mooy oo ministre bi mun ñu understand waaye da gis ne warutoon a àgg foofu sax. waaw tànk warutoon a ah. foofu. Eh, di ministre si boppam. waroon naa loolu ifin balaa nga ko ñun di ko oo di ko laaj. exactement sa waaye dafay waaye tam moom itam lu mu wax mooy ne tam eh, media bu ko report daf ko caught off guard parce que moom dafa dem sign pare gu sax gars yi tegal ko. Eh, TV ne ko parce que da ngay. is a minister waaw moom li ma wax la hmm. media bi. they have the right anytime. Well, any, anyway, yeah. To need to understand that you see, our public mm. o, o, o, office or our public officials no. have to be more open. open exactly. gis nga boo amee ubbite boo transparenté mm. doo wax ne the media took you off guard. Yeah, yeah. my friend waaw so so moom mu ngi refer to the CNBC bu ko bu ko doon report une fois moom xamutoon si presse dafaa wax ak ñooñu parce que that time exegul Gambia so mu ne the news actually went out if moom balaa ma ñëw Gambia sax ah, so loolu moo tax waaye eh, ni ñu ko gisee comme like comme man ni ma ko gisee mhm. um, as somebody who actually has worked in the banking sector many for mhm. many years mhm. and also um, um, an entrepreneur mooy di ne dafa nekk loo xam ne ne actually is very important mhm. waaye li ci gën a important mooy hundred million dollars boobu fan lañ koy dugal loolu loolu dafa nekk loo xam ne nii ñun ñëpp suñ suñ waxtaan mhm. ak suñ xool ak suñ bët fan lañ ko war a teg fan la mhm. war a jaar ba nga xam ne nii askan wi ñoo xam ne ñoo ko moom waaw eh, non for the whole uh, for the whole uh, uh, period ñëw tam bu ñu demee jël non du mun naa ñàkk a àgg lu mooy ñoom hundred million bi hundred million dollars for what for the years or oh. nothing. no waaw waaw exactly waaw. no 100 million dollars per xaaral may ma may ma may ma. may ma question bi sax. waaw lu mooy question bi 100 million per month. non non non or per year. no 100 million dollars. dollars. hello we know 100 million dollars. you take one is. you take almost. exactly 100 million dollars for what per month. non non non 100 million dollars moo nekk di di di entire agreement bi. loolu la di. for the entire 25 years. yes.

ah afterwards lañ toog ñuy leen a calculatal ba fa journaliste bi demee ci lañ réalise ne they the fish like almost seven dollars per kilo waaye nag problème mooy bi di jën bi ah. bëgguma dem ci jën bi yet dara mooy waaw mooy mooy non non non waa nga bi su million dollars for for the next understand really fan fan laa jëm Um, the, for example, right now, Gambia government will collect almost like, let's say, 400 million dollars every year. waaw to be able to get to that 60, I'm soo to so check 100 million dollars right now. Wow. So with the current rate, uh, you are talking about close to you know 62 billion dollars with the current rate. Okay, why not for Gambia government to be able to collect that money? Neko jila another 12, 15 years. Balanko mona collect every year. Understand? Not, so when they, not when they not when they digitalize and do this. Like not, you said, there's some issues well, with the toll, right? No, no, no. You have to calculate the value of money. The value of million in 25 years' time is not the value of money right now. It's the same thing. it's going to be mm-hmm. For example, so I mean, million dollars 10 years ago, low mono def. Like mm-hmm. 10 million dollars right now, low mono def. So there's a discounted key. so check the wow. Mm-hmm. So like right now, you look at that's 100 million. 25 years is too long. No, no, it may not be 25 years. Mom like for explaining. Nyom, mm-hmm. they have to also this is a business entity. Nyom, that's what I'm saying. they have to they have to say fii years ñoom xam nañ dañ they they should be able to get their money. Mm-hmm. Gambia government tam xam nañ tam ne ñii 25 du ko aga they know that. waaye tam ñi to to you know you have to do your uh, risk analysis to also understand that maybe it's my amee that longer period of time I should be able to get my money Why as soon as they get that let's say next 10 years they get their 100 million they will have to stop together with the 50 percent ah, they have to stop we mean they hand it over so means what guarantee is that is that is that documented no no agreement loolu la gaa ñëw the different right now with the minister of justice and the lawyers right now the only thing they did is a handshake which is an MOU meaning we are interested there is no deal right now the Gambia government will super si laa am lawyers tamit with the Minister of Justice ak ñoom seen lawyers yi dina agree that are the terms of conditions what is the responsibility of the Gambia government what is the responsibility of the Africa 50 or the consortium that's going to be used in the Gambia here from there nag mu door a ñëw mu dem cabinet cabinet tegalu karit change war a ak war a from there mu door a parliament so da ngeen ne ñoom du ñoo def mooy just handshake la rek ne waaw am not interest waxtaan so that's exactly where we are right now until it comes to the parliament you said yéen li ngeen su ñëwee parliament in fact si la ñu door a xam di nitty of Gambia government lan la ñuy responsibility exactly waaw mu ngoog two point five million dollars si moto yi ngeen am noonu because di ngeen jël seen time thank you because all eyes will be on you now on the mm. parliament yes Wow. waaw mm. Mm. thank you for nitty so oh, just to to close it also on that one mooy ne <laughs> hundred million si nga ko joxee Gambia government mm-hmm. the minister of finance or the or the president amul benn power to take a butut from it yëpp parlement laa ñëwaat back through a way of budget parlement agree ñoom ñoo indi propose ñu ne waaw bëggoon nañoo defar bridge bi wala bëggoon nañu defar yoon bi wala bëggoon nañu defar A B C O D parlement so 100 million dollar boobu noonu not even a butut government di ko laal ba mu ñëw parliament ba ñu agree waaw si budget bi léegi lii lañ cee def so again it goes back to parliament to agree or, not transparency at the end of the day lii yëpp boo gisee tey ñuy koo wax bu leeroon billahi duñ duñ ci wax honorable just know that like um, if this deal stands um, all eyes all are on the eyes. parliament exactly. to mm -hmm. see mm-hmm. what is yeah what yeah. sectors are they going to improve or this 100 um, million dollars yi waaw ba tey uh, comme time mu ngi lifin rek ñu dugga si um, garmi yi um, fi yi fi kuu bi parce que gis nañ Africa uh, tàng na torop si accun jéene ak uh, at least even though this year tamit gis nañ kuu yaa ngi sakan ñii nii di xëccoo ne term limit dafa war a am ñii ne African presidency dañ war a respect two term limits ñii ne déedéet mun nañ koo am because am na yoo xam ne and they don't even have time limits. Like the president can go anywhere, like example, um, the Gambia, you don't have a time limit. so ñu bëri nag mu nekk issue ak ECOWAS issue bi fële dalee dee on ñu ne comme ñu bëri su ñëw ne ECOWAS only intervene when there is coup but ECOWAS do they intervene uh, with the way presidents are handling their countries and you know the cry you know of the people and all those things so issue ku yëg yooyu naka honorable waaw xam nga Afrique in Afrique soo bàyyi xel depuis independence euh, in the sixties ba to date mhm. there am na daanaka suñu eboon nañ euh, ñaar two hundred plus coup ñaar téeméeri coup ak nangam daanaka mu ngi jege si ñaar téeméer ak ñeent fukk coup wala wala attempted coup yu si ëpp ah, mhm. now ñu bëri nag ñu ngi wax ne Afrique time limit la waane boo demee into detail there are is more than bu mujjee am yu mooy Niger Niger dañu am time limit so par gis nañ ku kuusa laalul foofu sax moom mu ne mu ne kuuna waaye du na affaire time limit kon dafa mel ni kon Niger affaire kuuna tam nekkul pour affaire time limit du loolu parce que kii dañ ko dafa win election in 2021 uh, mu ngi in his second year of the first term dafa remplacé ma Issoufou Mohamed Issoufou ku ku jël ni eh, Bassoum Eh, ñun ñoo bokk si pan african parliament bi fële mhm. moom moo win élection bi so kon moom bosam is not about time limit mhm. ñu constitution bi la bëgg a change to continue that time non non non non non already ñoo am nañ time limit already is there mhm. waaye nag a mu ne it's not about time limit moom lu mu wax waxut time limit dafa ne kooku mooy affaire insecurity of the country moom loolu la loolu la wax understand mm-hmm. insecurity mm-hmm. léegi ñu dem back ñu ñu ñu again ñu dem balaa boobu ma ñëwoon Burkina Faso mm-hmm. Burkina Faso also was xam nga bu bàyyi xel Burkina Faso gars yi sonal lañ ne trop léegi dañuy dem rey ay 20 nit 30 nit one time so Burkina Faso aussi bu kowam bi mu ne it's not about time limit moom tam wax mu ne affaire yi insecurity of the country mu ne government bi nekkuñ di def lu ñu war a def mooy in temps joxuñ leen bagage solaire yi pour ñu mën a dem fight tey ñoom ñu ngi seen ñàkk te wa euh, civil ñu ngi ñàkk ñu go back further ñu dem to Mali Mali also is the same thing IBK uh, when Ibrahim Boubacar Keita also wasn't about time limit understand so moo tax ñu bëri waxtaan ma ne ko non roman na foofu. Bazoum changed the the the constitution. no he didn't change anything Bazoum just second mu ngi second yem bi. that's what I'm saying wow. wasn't no. no, that. and no so lu moo ñu bëri dañ dañ feel to. Uh, do a research to understand. Mm was not actually about term um, limit. in fact uh, Kuku uh, um, uh one sa very clearly mu ne it was about insecurity waaye time limit ubur ubur gémé laal ko sax war time so war nga ne foofu du time limit nga ñëw tam also was not about Mali also IBK also dafa win election ñu tam am na Mali dafa am dafa am time limit moo tax was not about but also about Islamic insurgents so da nga ne insurgents bu affect Mali moo doon affect Burkina Faso moo doon also affect eh, Niger so ñoom ñett yëpp soo bàyyi xel ñu ngi wax ne affaire insurgent affaire insecurity of the population ñoom moo tax ñu def li def. waaw Guinée exception waaw maa ngi ñëw. maa ngi ñëw si Guinée waaw bu ñëwee si Guinée. Guinée moom boson spécial parce que Guinée président moo change the constitution bi moo pour mun a mun a yokkata te loolu one of the issues that was causing destabilization in the region comme li nga wax léegi nii sax yu mel noonu ECOWAS waroon na ci wax balaa moo exi eh, eh, toog seetaan gis nañ xam ne kii mu ngi ci loo xam ne nii dafay indi fitna ëllëg waroon nañ ci wax balaa lu fitna boobu di ñëw waaye bu bàyyi xel with all this coup particularly in West African region dafa am loo xam ne nii eh, man su ma jàngat ni ma ko gisee man ñaari mbir laa ko xoole mooy benn bi internal benn bi external internal bi mooy lan mooy di governance itself mooy eh, njiiti réew yi nu ñoo gouverner seen réew ndax loolu askan bi ànd nañ ci ndax loolu tam mu ngi dimbalee nit ñi pour ñu move poverty away pour ñu am sécurité yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat bu baax eh, beneen bi tam mooy comme um, uh, as, as, as, as, as, as, as a military force, your responsibility actually is to protect the sovereignty of the nation in terms of the, the, your, your friends and stuff like that. Mm-hmm. When bu fekkee young Islamic insurgents you nga am yëpp yoo xam ne yow ñu nga xam ne yaa war a protect Of course, loolu. Mm-hmm. loolu dafay créer problème. of course. parce que ñooñu la kan moo leen ko jox. exactement naka la ci réew mm-hmm. waaye nag yow yaa ngi gis loolu as as institution. Mm-hmm. pare yaa ngi bàyyi sa militaire yaa ngi bàyyi sa. because léegi loolu tam dafa nekk loo xam ne dafay cause problème. Mm-hmm. soo man sama jëmmi mooy internal bi mooy war na nga xoolaat bu baax ndax the governance architecture itself in West African region. réew yi nga xam ne ñu ngi am coup d'état ndax was it something that was decided by the people or not. beneen external bi mooy eh, um, a ndax date influence mooy buumu jàmm bu nga xam ne moom ndax loolu nit ñi ba léegi ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko kii loolu yëpp dafay tax nit ñi mer eh, tey itam boo bàyyi xel itam industrie yi Euh, France xam nga amoon na base in Mali. Mm-hmm. amoon na base in Niger. amoon na base in francophone countries. Mm-hmm. also am na a very big base in Djibouti as well. and in mm-hmm. also in Senegal. why are we why are why are they bringing all these bases war am all military bases in this African continent. lii yëpp loo xam ne one in Mali dañ daan dégg boobu moom gis dañ daan gas or they have a special area nga xam a fa mën a. dig te te maa ngi maa just read fan yii sax. benn research. Euh, kenn mu ngi wax ne comme like France. ñoo nekk di boo xoolee affaire yi góol risaaf ñoo nekk number four ci woon waaye nag ñoom amuñ góol on a so loolu loolu yëpp dafay dafa dafa dafay tey xel kon ñun suñ bopp man li ma ko gisee mooy ne war nañu xoolal baax ñun as africans ñu xool baax dis um, foreign force yi nga xam ne ñu ngi nekk ci ci ci ci Afrique muy France la muy US la muy keneen ak keneen keneen ak Russia ak itam bu ci gën a mujjee mooy dis Wagner Group mm-hmm. bu ci sa private ministre yi ñu bëri ñu la ooy ay machineries lan la ñëw def fii ci continent bi ñun as africains war nañu mën a toog euh, xoolaat bu baax ni ñoo jëflante ak suñuy askan ba xam ndax loolu euh, mooy yóbbu Afrique kanam oo yóbbu yóbbu Afrique kanam waaye man li ma gisee mooy léegi coup d'état bi foo affaire tàmbali waaye léegi romb na foofu. so loolu la ñett yu mujj gis ni yëpp romb na foofu except eh, Conakry. Mm-hmm. boobu moom lu mm-hmm. fa xewoon gis nañ euh, balaa ñu dama bëggoon ñu tënk ko euh, si Gambia parce que euh, bi yàggoo rek wax ne gis nañ président bi naam waxut ne dafa demaat taataam waaye wax génne na kàddu ne li ma leen defoon 2021 lu ko raw laa leen def 2026 so ñu bari nag interprète ne Baro bëgg na dem taataam. because uh, ñu bari ñu ne waaw Barrow warut dem Tatam xam nga dafa war a am that conscience pour joxe lenge yi ak yooyu noonu ñu bari ne waaw Barrow ba tey mun naa dem parce que euh, constitution bi amut am um, Euh, time limit so bar mun naa dem any any so ndax foog nga ne yow sa jëmmi bopp bar war naa tawata waaw loolu fa naam loolu du werante bi mm-hmm. werante bi xam nañ ne ku nekk xam na ne Gambia mm-hmm. suñu constitution bi mm-hmm. amul ne time limit waaye ñàkk a time limit tam doo doo minute ne da nga war a di continuer abadan parce que comme li ma doon wax rek am na lu bari su su xew ci réew fu njar ñu bàyyi xel ëllëg ne lii mun naa jur lii mun leneen so eh, man na baro woo xam ne jàngat ni ma ko jàngatee parce que itam anglais mooy comme waa léegi nii rek soo ko bindee man ni ma ko interprété yow da ko yàq moom nu nga ko interprété sama système bi ak daf dee ute moom ci lu ma wax moom waxoon dama tax waaye dafa ne li ma leen defoon dinaa ko dinaa def lu raw loolu loolu nag euh, dafa dafa dafa dafa diis comme like it's very heavy mm-hmm. so loolu wax daa rek ne damay taxaw wala waaye xam naa ne li ma xam mooy ne am na seven or eight advisors for example I think project whatever for now am na enough advisors at this point in time pour ñooñu wax ko lu nga xam ne pour advice ko on that on that whether mu continue or mu ñàkk a nekk continue waaye xam ne fekkee affaire loi la moom for na gameen si yëpp xam nañ ne wala ñu si ëpp doole xam nañ eh, constitution am alaaw na ko def loolu waaye nag léegi lu des mooy des na si moom advice am yi ak moom lan la gis eh, pour Gambia ëllëg ak gannaaw ëllëg waaye mu xam ne daal fii ku fi ñëw moom wax na ko ci boppam ci ci soose dafa ñëw dafay dem keneen tam dafay ñëw da ko dafay waaye noonu bu gis nañ comme comme yi ñu ñanga di ko génn sës génn di wax ne sa waaw borom su ko neexee na dem parce que amu temps limite mën a nga baal ma sax hmm. ma sof si loolu dara léegi taxawal nañ benn community euh, NPP committee euh, of elders pour jàppale wax ne dañuy pousse boro for 2026 waaw xam nga xam nga mooy mooy comme li mën a war nañu mën a toog waxtaan as brothers and sisters ñu mu xam lan moo mën a jëmee réew mi kanam boo bàyyi xel euh, sa Daouda Jawara bu mu annoncé remember nga si years ago boo xam ne dafay bàyyi lan moo ñëpp ñëpp ne bu mu bàyyi du mu bàyyi yow coow yaay jame bu mu kuyee um, the intention I couldn't moom dafa ñëw just pour organiser so lan war a end up happen continue exactly so léegi da nga da nga gis so da nga gis ne lii dafa loo xam ne ñun suñu bopp ñu war a seet lu nga xam ne ne moo nekk intérêt réew mi fekkee ne lii lu ñu xam ne ñun ñëpp bu ñu ko bokkee moo nekk intérêt réew mi ñu ñu ñu jëm sa jàppalaate rekale su fii nga parti boobu la fa dimbale tuuti xam nga boo nekkee njiiti réew nga taxaw nga wax yenn kaddu yi kaddu boobu noonu comme ni nga ko waxee specifically waxut ne day taxaw exactly man li ma ko jàngatee moo tax waxuma ci sax man boo plateforme bi ma nekk yëpp waxuma ci lu tax waxuma ci bi ko dama ko soofal lu tax ma soofal ko because waxu dara loo xam ne war naa tax man maay tëpp tëppi parce que dafa ne lim defoon 2021 lim leen di def 2026 moo raw léegi 2026 mun naa am gaa yaa ngee gaa da tànn a man si suma jàngat so pour man moo top tëb bu ubbee gémmiñam mu man adama baro dama continuer den suma maas dinañ génn wax est ce que loolu tamit du maanaam jox ma ne la déet moo tax déedéet waaye yow moo nekk déet waaye moo tax ma ne la wax bu nekk da nga koy seggaat parce que tey Macky Sall moo tax nit ñi ne ne du génn understand nga moom daf ko bind sax indi benn livre mais ñu bari riiduñ ko ñu bari gisuñ ko ñëpp di toog di dal hmm. moo tax lu nekk rek da ngay dal nga teey boo nekkee opposition loolu tamit lu am loolu tamit lu am important la opposition minute ne lu génn si président gémmiñi président rek ñëpp a war a tëb lu jarut a tëb buñ tëb ba time bi mu taxawee parce que dina am time dina taxaw as opposition li ngeen war a def rek ngeen pare weda mu ngee taxawoo taxawutoo ngeen pare si seen camp du noonu waaye mu wax rek ne li ma leen def li ma leen def mun naa miin ne xaaral dinaa leen surprise indi leen candidate loolu dafa rëy te bu fekkee ne dafa indi surprise candidate hmm. ko xam ne kenn foogeewu ko ah opposition bi dina tiit on loolu rek doole la tamit hmm. parce que loolu they didn't expect that ok understand euh, ok am na lu ma bëgg ñëw yow balaa mhm. ñu ñëwaat ci yow si UDP élection mhm. yi génn yow tamit balaa ñu mhm. ñëw ci NRP ak yooyu euh, dama bëgg a ñëwaat ci ECOWAS ECOWAS keroog daje nañ am benn ndaje dar dar mu emergency summit ci Nigeria doon waxtaane waat tolluwaay réewum Nigeria ginnaaw ba nga xam ne joxoon nañ leen app maanaam li nga xam ne mooy one week app bu ñu leen joxoon ne nañ use doole ak yooyu noonu waaye mbir bi amul seen béw ndaje bi nga xam ne defoon nañ ko tënk nañ fa poñ yu bëri. Mhm. ci biir poñ yi nag wax nañ fa tamit ba tey. Mhm. amal nañ li nga xam ne mooy buntu pour waxtaan. Mhm. maanaam lamiso maanaam diplomatie. waaye tamit ci biir loolu sant nañ ñi nga xam ne ñooy soldats yi ñu daas fanaanal tamit bu fekkee yëpp tu am euh, song man naa am léegi tey wàllu mbiru cong yow nan nan nga ko jàngalee ndax ECOWAS taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy def ndax ñu bëri nañ ne lu tax amuluñ ko Mali amuluñ ko Burkina Faso. amuluñ ko Tchad amuluñ ko fi nga xam ne mooy Guinée lu tax. Euh, Niger um, because Niger. part bi Niger di play si dëkku tubaab yi dafa rëy parce que seen gaz bi trou Niger la rombe pour ñu am courant ndax du uranium bi Niger laa jóge so ECOWAS man li ma gis si ECOWAS right now which is a very disappointing thing as an opposition as a as politician mooy nekkal luñ fa pour Africa ñu ngi fa pour outside world bi which is the west because France interest am mooy lan pipeline boobu noonu continue jara through Niger continue dem France parce que dañ soxla electricity parce que ECOWAS su fekkee ne mu ngi ci tànki dëgga ah tey xeex waruta am Niger ndax du hmm. xeex waru faa am parce que what is the fight liñ najee wax is very simple asi waaye nañ leen négocier ñu séddoo ko waaye doo leen jël yëpp dañuy jox ay weccit Afrique dafa romba foofu Afrique dafa romba fi ñuy ñëw esclavé nañu ñu jógee si esclave léegi ñu bugg a jël suñ jël nañ suñu ressources yëpp daanaka ñu bugg a li ci des nag ñu continue di ko jël ba pare bugg a african africain bi zéro xoolal Naija boo xoolee vidéo Naija ni Naija sonnee ni askan bi sonnee dëkki Afrique yi nga xam ne yëpp ñu ngi am alal xoolal niñ tumurankee niñ sonnee because tubaab baa ngee ñëw diamond bi gën a seer di nga ko gis si boppi king bi ndax loolu jaar na te ndaw yi nekk Afrique léegi ñoo bañ parce que ndaw yi ñoo gën a jàng gën a eewu te yaa ngi am président boo xam ne mu ngi leen di bollatino mu ngi si laas bostopam moom luñ lim spend si élection bi ñëpp xam nañ ko so léegi bu fekkee ne yow France même ci biir French papers yi sax ñu ngee bind ne I hope ne he performs at Niger ah lu te ñuy expect mu perform xanaa dañ ko dafa am nuñ ko dig léegi ngeen toog yéen président maasi suñ président bi fii suñ Gambie bu tuuti bii nga xam ne bii benn benn bomb rek lañ fee sànni rek yëpp jeex ñuy bokk si xeex boo xam ne it's it's one comme ni nga wax rek internal and external te internal bi lii lañ nekk di gis di advantage because all these insurgents that they're having these eh, eh, eh, naka tuddati jihadists who is financing them seen weapons yi fan laa ñëw so they themselves the west themselves ñoo nekk di create this chaos this instability in Africa te ndaw yi duñ ko jëlati président boobu noonu o army guy a young man and it's that generation now that is fighting ne they did it's enough is enough is either we make a proper deal or we don't. Yes, Russia is there through their, their, their military, uh uh uh, uh, uh, uh, private military, yes, Wagner, to, to, to fight for them. Why? Then Africa rather makes a better deal with Russia and China than with the Europeans because what have they handed us all these years? So, um, wow. waaw léegi waaw ñu tënk ko because topic boobu noonu is a whole topic. boobu Africa la it's all about Africa and it's about our resources because when they mm, mm, come mm. this time they coming heavy ba pare am na leneen loo xam ne li nga tudda loo xam ne tey dafa dangerous because war bi su amee in in in Niger tey seen weapons yi nga xam ne ñu ngi ko bëggoon a test bu yàgga déet dama laa da wax di nga bàyyi leen xel weapons yi nga xam ne jagar nañ ko bu yàgg ñu ngi ko bëgg a test xamuñ naka lañ koo tes this is the time they're gonna use it and they're gonna use it on African soil and this is one of the reasons ECOWAS bu fekkee ne ñu ma maa taxaw biñ taxaw is very wrong tey ñeenti dëkk rek a des buy dem xeex ñëpp rocceeku nañ mooy Gambia Sénégal Nigeria ak beneen dëkk bi an uh, Côte d'Ivoire Ivory Coast. déedéet Ghana Ghana. Ivory Coast hmm. ñeneen rek a ñooy dem xeex pour lan koo xam nga xam nga sax man. man foofu ma loolu la loolu la gëm. Hmm. parce I believe in diplomacy. waaye ñii ñu ngi tëj buntu waxtaan according to ECOWAS nee na ñu ngi tëj buntu. Euh, négociation diplomatie waaw waaw xam nga normally military coup su amee. Hmm. yooyu moom is very common. léegi danga nga xam ne kuy war a ñëw pour négocier léegi da nga def shut down dat doo yow nga defar sa own internal soo bàyyee xel xam nga lu ci gën a doy wax sax Niger xam nga soo bàyyi xel fan yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jël nañ already prime mm-hmm. ah, nañ prime uh, minister government sa 21 waaw 21 ministers waaw lu ci gën a doy waar prime minister boobu noonu mm. kooku moo nekkoon di ministre of finance and economy fii government bu ñu kóoloon 2010. comme moo nekkoon moo nekkoon finance minister by economy and that government government dañ ko kóoloon léegi kooku dañ ko kóoloon kooku indaa ko baak mu koo ak indaa ko xam nga da ne bu affaire naaj bi dafa xala dafa xala little bit compliqué parce que yaa ngi doon fay dara moo tax nga dem di koo mm-hmm. nga koo ay government leen nga bàyyi nga ñëw ku nga xam da nga ko ñu indaat ko bàyyi def ko prime Minister, mm-hmm. dafaa xaw a tee xel so moo tax nag yëfi they have to shut down all the states waaye man am very hopeful ne am mm-hmm. um, peace will prevail because man I have a lot of friends and mm-hmm. uh, members of parliament yi nga xam ne ñëw nañu Gambie fii um, uh, because I'm with their, I'm with them at the African parliament in fact I'm their chairperson so so I talk to them almost every day so the communication of them and the outside world is still going man I talk to them almost every other day. comme finally rek balaa nga ñëw si ndax war na because um, da gis africain si ñoom seen boobu dëkk bi soo demee um, comme ay Niger ay yi uh, su ECOWAS tëjee seen border bi lekka du dugga ak yeneen ak yeneen ndax loolu war na because loolu suñ ko defee nekku ne ñu ngi ko def um, coup leaders yi but ñi nga xamante ne ñooy citizen comme dund du hmm. biir dëkk bi loolu la ñuy use ndax foog nga ne sanctions yooyu noonu war na di am waaw xam nga sanction is just one of the tools you the guy use pour pour pour uh, pour pressure on you uh, pour nga wàcca um, pressure mooy lan bu waa dëkk bi demee ba sonna ñoom ñu seen bopp ñooy jokk comme yow ni nga jóge yoon defee ko so bu ñu defee those those sanctions some of the sanctions actually they were so severe that léegi-léegi waa dëkk bi ñoom si boobu ñooy jóg to go against your suburb. So those are all tools. It's one of the tools that they actually use. Why not? Uh, it's not be a way in uh, in such a way that the first one about the kibitam. Come like you have any application. Lige longur bokolo jingo deflo dara. Linga waron amul loko am. Loltam linga wara bay xel. Why lolu man dama wa moy ECOWAS li ñoo def is wrong period. Wow. Because yow you don't li ñoo def is just wrong. Okay. Because tay ok waaw loolu loolu. déet li xew Sénégal waaw ñu ñu jeexale foofu sax léegi moom Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko. thank you ah, ministre kii Macky Sall naa yow Macky yaa ngi na bàyyi saw gannaaw kër di dem ne da ngaa def. waaw loolu laa lay wax kii nu mu tëddee Marie Marie Marie Sock da yow mbiru Afrique daf lay yitteel xam naa foofu la ñu jeexale. mu la Ousmane Sonko léegi ci xibaar bu ñu jot. boo xam ne man am na ku ma ko dëggalal mhm. ki ko bind euh, di l'observateur bu Sénégal muy Daily Observer euh, one of their uh, leading observer euh, foofu noonu newspapers lu mu wax mooy mhm. Ousmane Sonko léegi dañ ko remove from the electoral list maanaam mënutut bokk ak élection soo génne nañ turam foofu maanaam mi ngi mel ni comme like moom amul vote card léegi waaw génne nañ ba pare dissolve euh, parti bi ci wàllu démocratie fu ñu toll nii mhm. euh, nan nga jàngatee si loolu def no démocratie in it xam nga lan laa gis xam nga xëy na ñu bëri ñu gis fi ma gis man li ma gis mooy the wan controlling all of this the Niger case the one in Senegal is nobody but Macron gis nga fii bëgguñ njiit bu eewu soo eewoo rek ñu raxas la because deal the way they want to deal the west wants somebody boo xam ne ah, Africa is corrupt Africa is this or the guy is hungry the guy doesn't know anything ñuy balaa may di la jox that is what they want to see the moment nga mel ni leader Mahasi Thomas Sankara yeeg ñoomin léegi Sonko they don't want that the moment you have a voice nga mun a toog mun a xeexal sa dëkka wax ne déedéet du nii laa ko bëggee nii then you have you a problem man mii wax a yéen sax ni waxee they don't like it they want ko xam ne waaw xam nga waaw ni so nii that is what they want they want Africa to have puppets and we are tired the new generation is not too Sonko tey mu taxaw ndaw yëpp toppa ko because he resonates the voice of the young people because li xew ndaw yi understand nañ ko they don't want to stand no more to be suppressed by the West because ñun Afrique bi soo demee si west bi niñ laa traité is completely different bu tubaab ñëwee tey sa dëkka bu west bi ñëwee fii ñun ñëpp a ngi leen di jay waaye pour dugga seen dëkka keroog rek maa ngi seet benn thing benn président I think I forgot um, mu ne bi demee mu ne eh, waa ji when we went came to Geneva as diplomats the way we were treated diplomats the way they treat them waxuñ ngeen léegi sax waxuñ sax yow even our diplomats ba pare ngeen bëgg pour ñëw Afrique def fi lu leen ne di contrôle lu leen ne the problem with Sonko and Macky is nothing but the West ok ok Marie ñu jeexal ci léegi fu la nga Marie toll ci politique bi gëj nañ la dégg ak maanaam ci yëngatu yëngatu génn xëy na ñu gis la ci wàllu politique nga dugg si waxuñ comme wax yi ngay def di def ay observation di gis réew mi ñuy doxee nga indi sa contribution waaye léegi gisoon nañ 2021 àndoon nga ak UDP ci élection bi yàlla def ngeen ñàkk élection yooyu mm-hmm. euh, Marie lan lay waajal ak tekki tekaral bu yàggoon googu ci wàllu wàllu politique euh, fan nga toll léegi ndax ba tey yaa ngi ci ak euh, lan ngay doon ci euh, waajal li nga ndax ci li nga xam ne mooy toni 2026 presidential election. waaw 2021 biñ jug jàllu teex ñëpp xam nañ ñu taxaw ak ki nga xam ne moo ñu wax ne moom soo gisee ma taxaw ak moom because of li mu wax toogoon naa ak président Baro waxul ma loo xam ne ànd ak policy mooy lan wax ma lan moo nekk sa policy. I want to stand with you based on policy and programme bëgguma taxaw a yor rek pour win wala nga lose te mënut maa wax so ma baaw eh, seenu wax ma ne ah bëgg naa nga ñëw nga bambuñu li nekk sa xol bi li ngay liggéey moom la liggéey so ma ànda seetu ma ci dinañ win ndax duñ win ci kàddu taxaw liggéey ci kàddu yooyu noonu laa taxawa nit te loolu laa wax président bi te loolu laa wax baaw suñu léegi ñu toog Euh, politique jeex na UDP winu for me that's still okay léegi li ñoo def life still goes on ku nekk nekk si li nga nekk I am not UDP. ok I am Marie Sock. de damaa waaw loolu jar na loolu jaroon na leeral parce que ñu bëri leen foog ne da nga bokk léegi ci parti am na man am na ñu ne da nga leen endorse rek comme am nga majority Gambian electorate bi nag ndeysaan dafa fa mm. nekkut xam mm. nga tey America même politics boo ci duggee mm. boo jàllulee da ngaa endorse keneen ki nga xam ne hmm. wala ki nga foog ne dina mun a jàll wala seen idéologie bi nekk benn hmm. nga jàllale kooku hmm. waaye loolu miinu nag yaa kookoo taxaw ok déedéet kon leer na so alliance of social democrats kon jeex na monsieur Mbow yow tamit ci NRP gis nañ la <laughs> foofu nga bokk euh, foofu nga bokk waaye tey dinaa am lu may say Marisol tey nag ci <laughs> NRP tey tey danay say nga war a danay say kon amul problème kon amul problème léegi yaa ngi yaa ngi NRP yi Euh, NRP gis nañ ne ñu bëri ñu naan dafa seeyal NRP sax léegi tur rek moo existe waaye seey na ci biir NPP euh, tey ndax NRP mu ngi taxaw moom it di waajal euh, ndax amoon na jamono bi nga waxee woon ne Euh, ba loolu xawoon na indi nag ay yenn wax ne bu njiiti réew mi bis bu déclaré ne dafay nekk président su ñu koy njëkk a against yow yow yow ci ngay bokk léegi yaa ngi ci biir NRP ba tey seen kii bi ndax ñu bëri gis nañ moom seen ki moom NRP wala ki nga xam ne mooy njiit li moom euh, amat Ba euh, moom moom jébbalu na moom. waaw xam nga kii NRP. foog naa su jumu sax foog naa ne two weeks back. Hmm. maa ngi ko doon wax si benn programme bu ñun doon am. Hmm. dafa yaakaar nekk ci coalition. parce que NRP ñun xam nañ ne ñun fekkee ñun rek ñun ñoo taxaw on there is no way we can win elections. Ahmad Ba won nañ ko before as a presidential candidate on his own Bokana coalitions also UDP Bokana coalition doi ba 20 you know 16 ba coalition with with the rest of the other political parties so ñun we believe in working together and um, particularly if our visions actually are very similar ñun ñun loolu la ñu def waaye itam ñun dafa nekk loo xam ne ne ENAP si koy def du joxe bopparoo ci làmmiñ ENAP yi du ñëw ànd you yow ñu bokk liggéey coalition ba nga ba nga taxaw bañ d'accord ñu win ñu dem di la undermine ñun ñun loolu wax dëgg yàlla ñu duñoo def loolu te gisuma ko si Amat Ba te moo tax ñu ñi nga xam ne dañu toppoo ànd ak moom te ñun ku nekk boo ma gisee parlement xam nga man parlement bi sax fekkee ne dara ñëw na bu dox dama na doxut waaye nag tam dinaa mën a indi dal teg ko ci téew ma ne waaw lii def foog naa bu fa jaaree dina mën a dox xam nga ñun dañ téye alxuraan waat ona sàng ne dinañ def suñu liggéey without fear or ill will te itam with the experience we have internationally and even locally fu ñu jaar ñu indi loo on the table so that we can come together as, as one country so at this point in time ñun we are still together in fact mun naa laa wax ne tey la relationship gën a dëgër than before waaw non su ko su fekkee ne xam nga loolu waaw waaw waaw waaw parti yu bëri waaw waaw xam ne ñu ngi ñu ngi ñu yéen a ngi. non mun fekkee ne jar na ko mun naa nekk sax waaye de waaye depend on how our people are going to, going parce que dem we cannot just take the unilateral decision we us MPs five of us um, sorry four of us and cannot take the unilateral decision waaye fekkee ne àgg na fa mu jar ko dinañ dem lu wax ak nit xam ne ñoo ñu fa teg fekkee ne gis na jar na ko wala ñu jar whatever they agree we gonna we that because ñun we are very democratic Marie Sock as a politician. kon damaa kon damaa ñëwoon tamit kon damaa ñëw rek kon tamit. <laughs> amul benn problème waaw waaw noonu la jërëjëf di ko jaajëfal moom euh, Marie Sock ndax euh, ñu koy yëgal euh, li nga xam ne mooy invitation bi yàggul te dafa tegu ci sax ñaari xel dafa rek ñëw li mooy wanal tamit ne mi ngi ci réew mi waaye tamit jox na boppam réew mi ndax bu ñu ko soxlaa lii pour ñun waaye mu wax xalaatam askan wi dégg ko askan wi ñi nga xam ne xëy na moom rek lañ nekk topp Mister Mbow tamit bu Saloum di amting biñ ko koolee ci bis bi rek la ñu daal di nangul moom it dinañu dinaa dinaa ñëw moom it tayit nii la mel ci ñu bari foo ko rek dafay daal di ñëw lii tamit la ñuy soxlaa ñi nga xam ne ñoo yor suñu place yi yi ndax tamit dañ leen ko dénk rek bu ñu leen soxlaa ngeen mën a ñëw waxtaan ak askan wi loolu daf ci am solo gërëm ko bu baax a baax gërëm Marie Sock waaye gërëm tamit bokk yi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel Eye Africa TV rawatina seen jotaayu breakfast show bi dig daje gaaw ba le di ñëw incha allah xam naa am time bi dafa gàtta trop kon ñu waxtaan lu bari ak ki nga xamante ne mooy Marie Sock ak ak honoré waaye eh, di leen jox di rek beneen yoon am na Marie Sock daal nañ ko amaat eh, a nice <laughs>